yow suba métti na de. trop ah trop. si trop. mais yow naka nga ko dundee. man dama koy waaj waaj yow bi dama koy waaj waajaa de. damay réveil bi weekend bi weekend bi. métti woon na nag. noo ko dundee. métti na trop. ah billaahi. biddanti woo nelawoo. non moom dama lekkul coob laa deful si weekend bi. ah billaahi. ma lu ma si si entre samedi dimanche bi. waaw vendredi bu ñu. gagné samedi dimanche bi aw ma appel ma perdre naa yeneen deux tuuti dem perdre naa yeneen deux kilos. waaw yow waaw waaw maa ngi yow ñoo yow yow yow yow ko dundee yow. Ah? amertume. mu mel ne dafa am lu kale mu ngi xat quoi. xat métti. difficile <laughs> la wala vax. wax wala wala wala kii la wudi xaw ma wudi. ne wax la. <laughs> boobu neex na. cëm sama njaago baa di ak maa ko Ah, man tamit damaa dafa dafa macha allah. seulement weekend bi bon j'étais dans d'autres mondes. Mm-hmm. beneen àdduna moo ñu moo ñu jël on était en pleine réflexion en pleine con concentration. Mhm. neloo ñu waaw mais bon on est obligé de venir parce que le monde nous attend la République nous écoute et nous suit. <laughs> gis nga man gis nga man man damay bàyyi man a bàyyi man damay bàyyi. non non man damay bàyyi man damay bàyyi man damay bàyyi. booy bi dafa ñeme wax yu rëy quoi <laughs> non mais le mo ouais mais le monde nous nous écoute. nous suit ah. et on a obligation de eh ma faa la moo jël la sama bopp man dama la. macha allah non bul jug bul jug bul jug bul jug ah nii nga def waaw nii laa def belle chemise ah c'est très ah, joli ça. merci beaucoup yow laa jàppale. daanaan nga de. ah merci macha allah mais waxtu bi jot na de. heure bi donc voilà merci euh, de nous retrouver sur les antennes de la 2STV vivez toujours une partie de cette magie à travers le rendez-vous euh, qui vous accompagne durant toute la semaine du lundi au vendredi 8h jàpp 10h ce matin c'est à nous muy suba si euh, ñooy ñooy borom ñooy borom ñun waa 2STV la première chaîne privée culturelle du Sénégal leer na la ne c'est la chaîne de toutes les générations l'équipe yegsi na comme ni ñu koy tàmm di defee tous les lundis dañuy am mbégte ànd ak madame Tamba kooku mooy Hawa euh, ci chronique bu am solo bi nga xamante ne dinañ ci waxtaanee ci kanam euh, destination mu dem foofu ca euh, kuppa Kupu Kala Kupu Kala Kupu Kala Kupu Kala muy musée africain. waaw muy musée africain boo xam te dañ ko taxawal biir digg Dakar. biir digg Dakar boo fa nekkee da ngay mel da ngay replongé wu sa enfance da ngay sa village natal après dinañ ci def. loolu dinañ ci yaatal incha allah très bien laata loolu nag dina def journal la ñuy jeexalee man ak moom incha allah ñu def euh, Hawa moom kenn dootu ko présenté sur la 2S TV Babou Ndour parmi nous euh, ce matin pour nous livrer toute l'actualité sportive nationale et internationale mais euh, ñu d focus ci li xamante ne mooy CAN 2019 bi ñu jugee 500. 250 joueurs 24 équipes gis nañu ne euh, raaya bi nag euh, Algérie euh, moo ko mujj yóbbu après 29 ans mu doon topp li nga xamante ne mooy beneen étoile sunu borom may na ko ko nag face ak équipe bu Sénégal bi nga xamante ne ils n'ont pas démérité c'est vrai il est la muy ndaanaan muy Mendy nga xamante ne man maa ko fangal sama bopp muy ndaanaan bu mag moom tamit dina ñëw waxtaanee ci li nga xamante ne dafay dem ci wàllum engagement jeunesse ñu war a li nga mi nga xamante ne moo jiite euh, France dégage euh, loolu dinañ ci yaatal incha allah ci kanam tuuti dinañu ànd ak Valérie euh, Séréer Safène kooku mooy gayel ci lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllum njënd ak njaay na xam nañ ne dafay am ay produits yu mucc ayib ak ay prix yu am am solo donc dañ ci ànd ak suñu partenaire officiel kooku mooy Aqua Terra espérant que vous avez tous très bien dormi c'est vrai parce que week-end bi ñenn ñi ne nañu week-end long la ah ndax défaite bi moom moo leen yóbbu ci mu gudd lool na ñoo xamante ne nee nañ nag bon c'est la loi du sport euh, noonu la tey da ngay dóor suba ñu dóor la mais euh, jàppoon nañ ne daal euh, instant bii nii nii nii nii coupe bi mu yoon fii ci palais wala boog fële ca fédération. non fii nii en ah, fii nii ah, ah, dafa war ñëw fii. kon kon kon nga woon teg sa kanam nga naroon teg kon dafa war a teg Baye Fall. barki sëñ Ba. gars yàqal nañ ma. non lu rëy sax. c'est. soxla ko dañ dañ lay c'est dommage mais loolu yëpp dinañ waxtaan <laughs> incha allah avec l'ancien international kooku mooy euh, Cheikh Sidi euh, Ba euh, chéri Zeyna borom point nga xamante ne moom it def na jéego yu am solo lu jëm ci wàllum sport taux de change dina ñëw heure de prière dina yegsi aussi mais tout de suite dañuy ànd ak ki nga xamante ne mooy Daara Abdoulaye Gaye moom mi nga xamante ne mooy suñu ustaas bés bu jot mu jox ñu yóbbalu bés bi ngir ñu xam ana naka la ñuy taxawee ak lan la ñu war a mën a moytu en tant que musulman c'est tout de suite mbokk yi di asalaamaaleykum jàmm yàlla yóbbalu tey bi day indi wax ju am solo joo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mu ni afdalul amal an tudxila ala axika almumin sururan aw taqdi anhu daynan aw tutcimuhu xubzan mu ni xadis boobu nag albani wéral na ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni li gën ci jëf yi li gën a tedd ci jëf yi ndax am na lu ñuy wax mbaax am na lu ñuy wax ngëneel loolu nag pour expliquer ko yomb na bu ñuy wax baax ngëneel dafa ñëw xam nga exemple ma ndokkeel suñu njaboot yi nga xamante ni yëpp doon nañ def examen bac bi yàlla ñun ci may d'office yàlla na leen jik ñi nga xamante ni ñoo am oral yàlla nañ jàll ci jàmm ñi nga xamante ni yàlla xañ na leen ko na leen ko may beneen beneen yoon barke alquranul karim xam nga am am na d'office benn wàll la waaye am na d'office ak mention dafa doon beneen wàll waaye ci biir mention yi am na mention très bien wala am na mention bien day wuute sax ak am na mention rek kon mbir mu ci nekk da ngay seet la ca gën nga koy bëgg rawatina nag jaamu yàlla macha allah mbokk muy wax wax ju solo nag mu ni li gën ci jëf yi te moom la nit ki war a bëgg am mooy nga fexe ba sa xol xolu mbokkum jullit nga ciy dugal mbégte nit koo xamante ni da fexe ba sa mbokkum jullit ngay dugal ci xol mi mbégte nee na loolu de bokk na ci jëf yi gën a màgg jëf yi gën a yiw jëf yi gën a baax ci jëfi doomi aadama yi di bégal jullit macha allah. ñaareel bi mu ni wala nga fayal ko bor bokk yi bor lu garaaw la bor bokk na ci yi nga xamante ni day yàq dund doomu aadama wala boog dund ko gore koo xamante ne bu yoree bor rek àddunam yëpp tukki ndax ñàkk koo mën a fay jaaxal ga mu koy jaaxal kon boo ko dindee ci loolu dafay am solo te bor dafay lu garaaw ndax loo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu masaana tëral néew mu laaj ndax am na ay bor bu nee waaw mu ne ndax am na ku ko fay bu ko kenn gàdduwul moom mu ne jullee leen seen néew ba préciser nag ni loolu mu ngi doonoon ci ndoorteel lislaam l'islam demee ba am doole daf daan wax naan ko amati bor na ñëw trésor public bu l'islam bi fay ko ku bàyyi alal nag na ko say mbokk doon kon nit ku amee bor dafay am jafe-jafe bokk na ci li nga xamante ni fiq wax na ko ki nga xamante ni yor na bor sax mu leer ko ni bu julli jee ajjuma li julli ajjuma di doon farata yépp yoon wi muy jaar kamu yoreel bor mu nga fa te du ko may jàmm di ko fayu may nañ ko jumaa wàcc ko kon bor lu garaw la kon bokk na ci jëf yi gën a baax fayal nit ay borom ñetteel bi wala mooy nga leel ko dafa indi rek mburu waxin la mooy nga leel ko rek ci lu mu lekk nee na loolu it bokk na ci mandarga yi nga xamante ne li jëf yi gën a baax lool bokk na ci di leel nit ki di fexe ba nit ku xiif nga fexe ba mu lekk kon daal ñetti jëf yu màgg la yoo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee bokk na ci jëf yi gën a màgg ci jëf yi yàlla na yàlla defal digg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatulah taalaa barakaatu ñu koy santati bu baax a baax kooku mooy euh, Daara Abdoulahi euh, Gaye mu nekk ko am solo ci lépp li nga xamante ne bés bu jot mu dénkaane ko fii euh, ci biir ce matin seetaanu ñoo ngi koy sargal bu baax ndax jamono ji mu ngi waajal dem foofu ca Màkkatal Mukaram ndax xam nañ ne guide la mu ngi jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ne mooy pèlerin yi ci ana naka la ñuy def ba mën a def seen aj bu jaar yoon bu am solo tey nag li mu waxtaanee dégg nañ ko ci ndorteelu waxtaan bi muy sensibiliser di féliciter. féliciter encore une fois euh, ñi nga xamante ne ay mooy suñu ndaw ñi suñu doom yi suñu rakk yi nga xamante ne jot nañu am baccalauréat euh, ba jëm ci li nga xamante ne moom mooy BFM euh, donc muy wax ci wàllum mention bi très bien bien ak passable ah donc loolu daf ñuy fàttali nag démb ah ci suñu premier diplôme universitaire mais aussi mu waxtaanee li nga xamante ne mooy taxawaayu doomu aadama ah ci wàllum diggante jullit ak jullit nit ak nit ndax nit moom dañuy wax ne mooy garabu nit ah donc nit moom bu nekkee garabu nit tamit mën na nekk safaanu nit dañuy wax euh, yàlla na suñu borom musal ñu ci bu baax a baax mais dafa am solo euh, ci wàllum bor ah bor bor ndax bor euh, bokk na ci yi nga xamante ne day déstabiliser doomu aadama ci kaw boo nekkee gor dafa nekk ne engagement la hmm. parce que da soxla nga ñëw ci nit ki kon boo fajee sa soxla ba pare yoon la moom itam nga dellee ko lim la joxoon hmm. parce que lépp ci kàddu gi la tout à parce que da nga amaloon ak moom ay kaddu. Mhm. abal ma lii ma faj sama soxla su paree delloo la. tout à fait n'est-ce mhm. wax nga ci wax yu yërëmtalu wala mu yërëm la. Mhm. wala sax mu xool diggante nit ak moroomam. mu dawal la compréhension parfois nit koy dóor comme ni ñu koy waxee mu naan ne kii daf may teg diil waaye xolam du ah, <laughs> ah, de. xam a tas <laughs> parfois da la rek waaye du dara. d'accord daal nañuy sàmm kàddu yi moo gën a am solo sàmmkat yi mu nekk lu am solo euh, Mendy ndax dañuy wax démb euh, boo seetee amul woon signature amul woon euh, def décharge mais diggante gor ak gor rek dañuy joxante kàddu kàddu boobu nag boo xasee ba joxe rek xanaa dee mais dangay fexe ba mun koo mëtale donc mu nekk lu ama am solo loo xamante ne doomu aadama war na ko mun a làmboo mais tamit ñuy jàppalante suñu biir ah di dawal compréhension dafa am solo. waaw ñu ngi li wax ne dafa am solo trop moo tax ñu mag ñi doon Euh, balaa ngay wax il faut nga réfléchir bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax kàddu boo xasee ba génn c'est très compliqué pour nga rattraper wu donc euh, tout compte fait. que ça soit yow muy keneen balaa mm-hmm. ngay wax da nga war a réfléchir parce que kaddu dafa dafa fort et puis kaddu bi nga xam ne dem na ba sens commun ñëpp déglu ko pour même bu fekkee ne da ngay louer sa 2STV bi pour jéem a rattraper wu dina métti trop donc avant de dire quoi que soit il faut réfléchir mûrement réfléchir balaa avant de parler. c'est très important. loolu moo tax léeg-léeg euh, remue euh, cette fois la langue avant de parler avant de se prononcer euh, sur quoi que ce soit donc loolu dafa nekk lu am solo c'est vrai il vient de nous rejoindre sur ce plateau bu la neexee nga jéggat nga ñëw yegsil comme yaay suñu star yow moom dañ lay xaar waa jéggatal ñëwal kaay yegsil. Ah, amul bàyyi li ma lay def dara mere naa la trop nga tukki bàyyi ma fii ah, ba ngay dem mënoon nga maa yóbbaale ah, bu ko defee mën naa la dawal xam mënoon la dawal ah comme mën naa la mënoon naa la wéttali ah Valérie Gaël noo def ñoo la raw waaye naka yitte yi naka naka a yeewu bi mu ngay métti <laughs> boobu ba tey très bien donc Valérie Gaël kenn dootu ko présenté dans ce matin euh, c'est waaye tamit ñoo ngi ànd ak beneen euh, ndaanaan beneen jàmbaaru réew mi euh, yàgg ko porté supporter un peu à travers le monde muy borom point 1 e, ndax xam nañu ne euh, jamonoy euh, nawetaan bu ñu waxee ASC point 1 e, euh, def na ci jéego yu ama ama am solo muy sama nijaay di sama xarit ah ñu bokk bokk nañ ci ci Sicap Rudis mais bokk bokk nañ aussi sama sœur mi nga xamante ne moom mooy soxna Zeyna ñu ngi koy ziar bu baax di ziar toute la famille donc Cheikh Sidi Ba parmi nous aujourd'hui pour parler de l'actualité sportive nationale internationale mais dañuy def focus ci li nga xamante ne moom mooy CAN 2019 merci d'avoir répondu présent merci Nicolas maa leen di remercier pour invitation bi di nuyu téléspectateurs 2STV yëpp mm-hmm. dafa dafa moom dafa sedd nag mais bu nga ci terrain du sedd rek eh, da ay daal ba <laughs> mu yàgg def suñu euh, fierté yàgg sol euh, équipe nationale euh, maillot bi muyee bu baax a baax a baax donc tey moom la ñu bëgg a waxtaanal ci li nga xamante ne mooy CAN 2019 bi ñu jugee donc di sant di gërëm bu baax ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel 88 point 4 muy rajo bi nga xamante ne moo wodd réew mi nga xamante ne doomu aadama yi ñuy déglu ci Tata King Long dem dikk Sen Long Njaga tax taxi clando particulier ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal ko jàpp ak apprenti yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal ba ci receveur yi 88 nag rajo bi euh, kenn dootu ko présenté Babou mais di remercier les sénégalais de l' extérieur de la diaspora yi nga xamante ne ñoom ñuy bàyyi xel waa Maroc sénégalais yi fa nekk di daan seen doole ñu ngi leen di sargal bu baax a baax léegi-léegi ñu ànd ak Hawa ci euh, xibaar yi ci kàllaamay Kocc c'est maintenant mu ngoog euh, Nico xanaa bu ñu ñëwee ñëpp dalal ñëpp nag ci émission bi xibaar yi nag ci gàttal lañ koy dooree ak wàllu njàng mi ak BFM 2019 résultat yi nag tàmbali naa génn muy résultat yu premier tour yi bu ñu demee fi nga xamante ne mooy centre bu Ourossogui ca Ourossogui ñu ñuy xamal ne nag lu toll ci 90 élèves jot nañoo admis euh, d'office gi ne 114 yi nag di xaar lii di examen euh, deuxième tour bi bu ñu jotandikoo bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne kilifa yi école bi daal di nañ koy jox mu mel baax yu daaw yi bu ñu defee bu ñu sukkandikoo nag ci statistique yi ba tey ci xibaar yi dañuy ànd ak janoo bi nga xamante ne waa collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ñu ngi ko doon amal euh, démb ñoom nag ñu tuddee seen kuréel gi ànd sàmm jikko yi démb nag lañ doon janoo ak taskatu xibaar yi nag bi lépp ndaje nag liñ ci buggoon nag mooy ñu xool xoolaat jikko yi waxtaan nag xool naka lañuy ñuy fexee ba gone yi di sàmm lépp loo xamante wala jikko yu Sénégal yi dañ ci ànd ak Sayer Bodian moo ko Alpha Bathily bi di yëngu di xeex franc-maçonnerie ak lépp lu jublu ci néewal suñu diine woote na ab ndaje ngir fësal naqaram ci doxal yi ñu nemmeeku ci dëkk bi. ñaawteef yi nga xam ne mu ngi am ci dëkk bi di am ci réew mi dañu ñëwoon pour naqarlu ko pour tamit jëm cee wut saafara bokk na ci ni ñuy fawee diine ji di dëgg alxuraanul karim franc yi ak affaire ngóor jigéen. ak lépp loo xamante ni day nasaxal suñuy valeur suñuy jikko dañu ñëwoon fii pour naqarlu ko. Sénégal institution bi constitution bi norme yi joxe la gendarmerie ñëpp ni mu tënkoo lépp ni mu tënkoo c'est maçonnique. ñu jiite collectif bi ak li ko wër ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu génnee mu génnee fi li di ministre du genre ndaxte nee nañ loolu antuwul ak suñu gëm-gëm. mooy soufflé léegi ni ma. am na ay kayit yu ñu gis ci réew mi en tout cas di permis de conduire yu bees yi supprimer nañ sexe bi léegi genre lañ ci def loolu c'est très dangereux suñu réew mi fan la jëm kon il faudrait que nit ñi xam ni lii may wax ni procureur bu fekkee dafa mën a jël si man pare naa fi mu nekk nii waxuma la dem kaso mais pare naa léegi pour dem baax yi fi mu nekk nii te ñoom bu fekkente ne danoo yaakaar ni réew mi ñoo ko moom police o gendarme rek armée lañ ci yemale laa la réew mi kenn du nangu ku ko saax-saaxee di ko jaay di ñu wanteer loolu duñ ko nangu waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi wéy di woote jàmm ci kër diine yi ngir ñu jàpp bu baax ci xeex jëf ju bon ak lépp luy xaajale doomu aadama jaajëfal moom Sayer Bodian ñu dellu soit ci coowal li nga xamante ne mooy dàkkup élection yi bu ñu sukkandikoo nag ci le non alignés ñoom nag ñu jàpp na ji di waa national bu résistance ak seen yeneen i naataango dañoo war a dañoo a bàyyi nag di jouer ci maayinu sénégalais yi bu ñu sukkandikoo nag ci coordonnateur boobu lépp kuréel di Déthié Fall mi ñuy teewlu ci micro Fatima Diallo ak Abdoulaye Ndiaye. te ñëpp nangu nañu ne processus électoral ak code électoral bi ñu yóbbu ci élection présidentielle baaxul ba moom moo indi. jafe-jafe yi am ginnaaw élection présidentielle ba kenn mënta nangu ne ki ñu fal-fal nañ ko ci anam bu tegu ci yoon kon loolu bu amee ñu wax ne bu ñu bëggee soobuwaat ci beneen élection te loolu lijjantiwuñu ko fi ñu jëm ci fitna rek fitna rek lay jur kon naka la ñu mën a def ndong ba moytu fitna boobu ba code électoral bi nga xam ne moom la ñu amoon 1992 ñu fexe ba nun nag ñu def li nga xam ne moom la waa réew mi di ànd di xaar ci nun ñu taxawal fi beneen code électoral boo xam ne kenn dootul tudd code électoral consensuel bu 92 mais dañuy wax code électoral consensuel bu 2019. Paul Denona la bi muy def proposition boobu li ëpp ci ñooñu nga lim seeni ndaw a nga fa woon te àndoon nañ ci kon ñoom bu ñu ñëwee ànd ak ànd ci proposition bi dem. ci ginnaaw gi seeni eh, eh, eh, seeni parti dajewaat wax ne ànduñu ci loola kon ñoom ñoo war a leeral seen taxawaay ñoo war a leeral naka la ñuy mandaté seeni nit ñoo war a leeral naka la ñuy jële décision parce que ñoom ànd nañu ci décision bi ba nga xamee ne ñu ngi koy jël ci euh, waxtaan bi mu ngoog mu nekkoon ah, Déthié Faye au lieu de Déthié Fall ba tey dañuy waxtaanee wàccaayu tabaski bi ni ngeen ko xamee nag bu tabaski di jub si nag fépp ci ndakaaru daanaka xar yi dañ fay daa di bëri ngir xool nag borom kër yi naka la ñuy tànnee nag xar mi nga xamante ne moom la ñuy amalee feetu aide bi xanaa ñu ànd ceeg Fatima Diallo ak Alpha Bay ci ku gis lii day foog ni ñoo ngi seeraas wala foora moo ne day du loolu ci yoof lanu nekk tabaski bu desee ay fan yu néew mbeddu ndakaar yu bari dañu koy def jaayukaay xar fu mu toll nii nag xar yi bëreegunu client yi tamit ñëwagunu waaw xare instant toll moom mën na wax ne bareegul bareegul parce que yii boo gisee nii ñu dañ ko yoroon bu yàgga ëpp na mën na at suñu nekk ñu doon bu yàgga bàyyi ko suñu kër ba léegi moom lañ génn nii xamante ne boo gisee jëndaguñu ñëwaguñu bu óor bi dëkk bi estantool dafa xat am ñoo xam xamante ne amuñu fuñ jenc xar fuñ jenc si ay xar amuñu ko waaye tax am ñoo te ne dañuy jënd xar sax bàyyi ko fii nii ñu téyel leen ko téyel leen ko ba xamante ne ni tabaski ji mu ngi waaje ñëw bu ko defee ñu doog leen koy libéré waaye en général moo tax gars yi estantool du ñëw bu desee ay 10 jours 5 jours 7 jours suñuy doog mën a ñëw pour jënd seen pour yóbbu parce que amuñu fuñ jenc xar ci wàllu njëgu xar yi nag ku nekk ak fu dooleem toll rek. prix pour nekk xar mu nekk ak njëgam rek am na xari 200 yoo xamante ne ñu ngi fi am na xari 150 am na xari 100 am na xari 200 ku nekk ak prix bi xamante ne moom la toll daal xar yëpp am na 250 am na 200 am na 150 ku nekk daal ak lu si doole toll daal am na fi. lu jëm nag ci wàllu yokkuteeg njëg yi ñoom mu ñuy xamal ni loolu dafa am ci lu mu aju. bu demee ba àgg ay benn suñu a ngi si gàccaa ngi si. ndama ngi si gàccaa ngi si mën nañ dem ba mu des ñaari fan ñu ne xar yi ji na bu boobaa boo yoroon mel na xar mu doon jar cent cinquante mille nga ko jaay deux cent nga dem ba si kii mu am problème nga jaay ko cent cinquante nga dem ba nga xamante ne tabaski ji mu a ñëw xam xar yi bari na trop trop yow bu fekkoon na nga yor xar boo ko yóbbuwaat sa kër da ngay obligé jaay ko prix boo xamante ne arrangé na wante boo fekkee dem nga boo xamante ne dem na ba xam ne xar amatul xar moo day day day moo tax ça dépend si kii ba rek. Aidel Kébir ñu naan ko tabaski fii ci senegaal mooy fàttaliku sacrifice bu sunu maam Abraham defoon loolu nag jullit yi di ko màggal at bu ne. Fatima Diallo xibaar yi wala tënkub xibaar yi nag ci lu gàttal lañ koy daal di jeexale ak marché Sénégal Algérie bi final boobee sax ak faatub kii di Mamadou Bari di ab doomu Guinée bi nga xamante ne ñu jot ne ab supporter algérien moo ko daal di faat ginnaaw nag bam ko jaawale ak ab sénégalais kii di Mamadou Bari nag ay atam tolloon nag ci 31 ans nag ñu naan nag ginaaw match bi la génnoon ak soxnaam ñu daal di koy songu ci suba sa nag la mujjee gaañu la mujjee faatu ndax ay gaañu gaañu yu métti xibaar Nicolas delloo naa la kàddu gi. jërëjëf ñu ngi lay sant di la jaajëfal bu baax ci noonu dañuy desandi ak yow ba tey ci euh, revue euh, des titres avec les journaux euh, locaux ndax tey kayiti yëglekaay yi bëri na lool lool lool lool kon yow nu muy gën a bëri rek sa yaram bi gën a tàng. moom de sant naa loolu. ah, ah. <laughs> waaye dañ koy tënk rek. dañ koy tënk très bien kon bu ko defee ñu tàmbale ko avec le soleil. le soleil muy le quotidien national moom itam mu dellu soit nag ci li nga xamante ne mooy retour sunu gaynde yi ñu xamal ne Macky Sall nag daal dinay jox li nga xamante ne mooy sunu gaynde mu nekk million millions de francs CFA muy mel ne mu nekk seen i ab prime nataal boobee nag la waa soleil daal di fësal. bu ñu jógee ci le soleil ñu jàll ci quotidien. le quotidien moom itam ci final bi la daal di dellu suñu xam ne même su dee nag gaynde yi dañoo ñàkk final bi teewul nag askan bi yëpp ñoo génnoon daal di leen teel su moom itam mu dellu soit ci prime yi nga xamante ne jiitu réew mi jox na ko sunu gaynde yi lépp nag jëm ci mbégte mi. ginnaaw le quotidien ñu jàll ci Vox Pop. Vox Pop wala le bloc wala l'observateur wala l'observateur <laughs> amul problème mooy coowal ah, Petrotim bu mel ne nag jamono nekk di tàmbale nag xool wala sax fouiller compte bancaire yu Aline Sall yi daal dinañu amal ay réquisition ci fépp foo xamante ne banque la ah, fii ci Sénégal tàmbali nañ nag investigation yi Abdoulaye Wade ak Karim Wade ñoom itam dikk nañ leen seen i kaddu Vox Pop mën naa taxaw fa mu taxaw ba tey ah bu ko defee eh, ñu jàll ci Vox Pop ginnaaw ñu jógee ci eh, l'observateur moom itam dafa dellu siwaat nag ci défaite bi nga xamante ne gaynde yi am nañ ko ca Caire gaynde yi nag dellu siwaat ak mbégte mu rëy ndaxte lii gëjoon nañ ko gis depuis atub 2002 ba sunu gaynde yi nag jugee fi nga xamante ne mooy ca mondial ba ginnaaw euh, Vox Pop ñu jàll ci enquête enquête moom mel ne dafa amal li ñuy woowee ab décryptage moom la fësal sax ak nataalu li nga xamante ne mooy tertu bi amoon ca buntu palais ba mbooloo mi takku ma fa nekkoon loolu yëpp daal dina koy faram-fàcce ci biir ab yéenikaay bi ginnaaw enquête ñu jàll ci euh, Sud Quotidien Sud Quotidien daanaka moom itam ci CAN 2019 bi la daal di dellu siwaat nag waxtaanee lépp loo xamante ne mooy accueil bi nga xamante ne askan wi jagleel nañ ko sunu gaynde yi fi nga xamante ne Macky Sall nag di xam naan gaynde yi nag vous êtes tombé les armes à la main Matar Ba juróom yi ñu ko wàllu tàggat yaram tamit moom di xam ne dellu siwaat nañ même su dee nag am nañ frustration bu rëy ginnaaw Sud Quotidien ñu jàll ci euh, critique critique moom itam naan gaynde yi daanu mel ne yaa daan moom daal moom la daal di fësal jooy nañ fële ca Caire waaye nag ba ñu agsee ci dakaaru Dakar daanaka mbégte rek moo ci fësal mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ñu jëm ci Dakar Times waa Dakar Times moom naan Algérie mooy championnat d'Afrique 2019 mu nekk muy sampu ab laaj di xam ndax coupe bi mu mel ne mu mel ne coupe bi dañ ko daal di jënd muy nag ab laaj boo xamante ne waa Dakar Times moom lañ daal di fësal stade lu mu xëy wax Saat moom itam dellu soit nag ci tertu bi nga xamante ne sunu gayndee yi leen daal di tertu comme ay jàmbaar ñoom ñëpp nag muy naan lion yi nag ñoom ñëpp jot nañ ab hommage bu am solo ci askan wi. ñu jàll ci euh, sunu lamb. sunu lamb di sunu sport national moom dañuy daal di waxtaanee face à face Modou Lo ëmb déjà tàmbali nañ clashante bi. xamal leen clashante nataal sax lañ daal di fësal nii ku nekk nag di wane boppam ku ne ku ne di wane boppam yàggatul de a xam yàggatul de yàggatul de avec le l'incontournable Moustapha Diop 37 5 ok Africa moom mi nga xamante ne partenaire bu 2S TV la muy drapeau royal bi hmm. loolu dinañ ci dellu soit incha allah buñ ko hmm. defee ñu dem ci euh, la tribune waaw tribune moom itam di dellu soit nag ci te gaynde yi même su dee nag défaite bi am na ñu mu metti te wuy nag di metti ñu bëri ci askan wi mu fala jaare ak waxtaan année Fatou kii di Mamadou Bari ñu naan nag ab algérien moo ko daal di jaawaleek doomu Sénégal ba tax mu duma ko duma yu metti yooyu la duma sax mu mujj faat bakkanam très bien donc dafa mel ni euh, li ñu dese euh, boo ko yëkkatee yëkkatil ma xool yëkkatil tribune voilà kon les échos voilà ko tamit dellu soit rek ci mbégte bi nga xamante ne gaynde jox nañ ko askan wi ak tertu bu rëy bi nga xamante ne daal nañ koy amal très bien kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci lépp li nga xamante ne jot nga ko fee euh, fësal euh, ci euh, journaux locaux yi di sant di gërëm bu baax ku ci mel ni Sadikh Top nekk foofu ca Thiès benn dëkk ñaari gaar nga xamante ne waxtu bi ñoom ñoo ngi taal seen i ay téléviseur di ñu bàyyi xel dans ce matin c'est à nous ci kanam tuuti incha allah dinañu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy sous-préfet de Dakar Djibi Diallo moom bi nga xamante ne moom la ñu duppee Jagbor ci disponibilité am ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne mu ngi koy liggéey un peu partout à travers local développement événement bi nga xamante ne ñoom ñoo ko organisé euh, di waxtaanee euh, préparation des nawetaan euh, bilan ak perspective loolu dinañ ci ñëw incha allah par téléphone ànd ak sous-préfet monsieur Djibi Diallo ndaanaan bi nag yegg si na xam nga jaaykatu ndox bi moom bu ñëwee macha allah nga xam ne lañuy naan ndox dëgg la xam nga baabu demoon naa këram la ma jox du ndox <laughs> waaye yow lañ ñuy jox laajal tons léegi mu daaj bosam. te Nicolas boobaa boo fay demati da ngay gànnaayu. damay xam naa ne mënoo fay ñàkk ñàkk dem waaye da ngay gànnaayu booy dem ci man kañ moom a génnee laal dama def erreur <laughs> bu ma yëgoon moom bu may dem damay yóbbaale aquaterra kese waaw macha te boo yëgoon sax jëndal ko pak yóbbul ko ba noonu la def sax est-ce ko def tey muy ñibbi ma yóbbaale moom tamit mu waajal boppam mangoog daf ciy am solo <laughs> Valérie Gaye alors euh, Nicolas donc euh, ba tey rek suñu bëggee téléspectateurs yi xanaa ma daal di jéggat naa ko dem fekk si ci seeni plateau parce que daanaka kii dama ko bokk ak nit ñi waaye plateau téléspectateur jënd a jaay gi ci boppam a nekk nii donc ba tey ma daal di dikk ak yéen des ak ci li nga xam ne moo di Aquaterra cette eau pure et légère mi nga xam ne moom lañ leen di indi saa su ne donc Aquaterra nag man euh, tey li ma si gën a neex waaye tam li ma ci gën a surprendre mooy dama dugg tey ci ay vol yoo xam ne dama fa fekk Aquaterra j'ai été très fière parce que gëm naa ne ndox bi seel na seelu goo xam ne que tey fu ne xaj na fa donc euh, eau purifiée eau ozonée euh, par osmose Cosmos donc kooku moo di Aquaterra ndox bu sell bi pagu 350 millilitres jëmee ko 600 millilitres waaye itam euh, pagu li nga xam ne moo di 19 litres daanaka sax doonatul pak waaye benn bouteille fontaine rek lay daal di doon donc 19 litres bi ni moom lañ leen fas yéene jagleel pour njaboot geeg ñi nga xam ne daal dañ ko bëgg rek daal di teg seen kër ku ci ñëw ku nekk gànnaayu ci baaxoo si waaye itam c'est à portée gis ngeen bouteille bu tuuti bi fu la neex fu nga daal di koy yóbbu kooku mooy Aquaterra donc ku ci bëgg naa da ngay daal di tepp nànk ba 2STV wala nga di jubal fii nga xam ne moo di dans les grandes surfaces du ñàkk nag moom di nga fa gis aquaterra te boobaa xam naa boo jël doo jël pagu benn daanaka gaa sakkan na c'est un pack de douze waaye xam naa da nga nar a jëloon lépp pour li nga xam ne moo daal di war a mën a nekk sa ration weer alors Nicolas ñu daal des si yow jërëjëf Valérie euh, Gayal séeréer euh, Safeen nga xamante ne moo gën ci njaay gis ngeen ndox mi euh, muy ndox boo xamante ne dafa gën a xew ndax barki mu dem naa ci benn grande surface waaye gis naa ndox bi ni ñu koy jiróowee ma ne leen gàcce ngaalaama Valérie ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne bés bu jot mu def ko 88 628 14 13 bu ko defee ñu wax jox leen ngeen wax delloo ñu dafay am solo lool ngeen def seen i ay commande waaye di leen fàttali le combat royal mi nga xamante ne drapeau bi ñu ngi ko duppee la star planétaire muy Youssouma jigéen Ndour dox ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène le roi des arènes nous allons rentrer dans la vif du sujet pour parler avec euh, l'international l'ancien international bi nga xamante ne euh, yàgg naa mouiller le maillot pour notre drapeau mu yàgg nekk suñu fierté ba ñu nekkee ndaw ba tey euh, macha allah suñu borom defal na ñu am chance su mun koo seetaan ba tey nag ñu mun koo woo en tant que consultant ñu waxtaanee encore une fois la CAN xool Sénégal sortie 17 euh, ans le Sénégal euh, toog euh, demul ci final bu mel noonu waaye tamit Algérie toog na 29 ans mënul tàpp beneen ad étoile donc loolu la ñu war a waxtaan ak monsieur Cheikh Sidi Ba la note si si quelle est la note aujourd'hui si on bu la doon jox nga war a mën a noter Lions yi ci seen prestation bu mujj bi nga xamante ne def nañ ko face à l'Algérie lu muy doon sur 10. sur 10 euh, contre l'Algérie je dirais juste la moyenne. la moyenne c'est combien 5 sur 10. 5 sur 10 ouais. très bien loolu ça fait l'objet d'un d'un grand débat ah parce que li tax ancien international joxe ko 5 sur 10 loolu dina ci gën a yaatal. bon non développer 5 sur 10 pourquoi. ah 5 sur 10 parce que euh, non seulement euh, je donne juste donner juste la moyenne on n'est pas sorti victorieux de cette finale. Mm -hmm. et c'était la deuxième rencontre contre l'Algérie lors de cette CAN et que. on a vu moom nag dafa tubaabe de. on a vu la de tubaab lay làkk de te moom li ma invité ne ko version française ah, moom la def ba miin ah waaye waaye waaye tey dañ koy <laughs> bi Sénégal amoon. d'accord à peu près 65 67 pour cent Sénégal la amoon. donc ça amee possession de ballon ça veut dire tu dois être performant et Sénégal soo xoolee final bi réalisé wul dugul benn but. Mhm. et que pratiquement on n'a pas été dangereux. soo xoolee occasion yu ñu si am c'est deux tirs de loin. Mhm. et en plus c'est deux tirs yoo xam ne c'est en dehors de la surface. tout à fait et que Algérie daf ñu bàyyi bal bi dem retranché aussi camp am toog di xaar di défendre. Mhm. et Sénégal profité aussi. donc euh, loolu moo tax ma joxe 5 sur 10 joxe juste la moyenne. d'accord et que parce que lu tax ma joxe 5 sax en plus problème mooy reyante nañ ba egg final. Mhm. donc euh, on mérite il mérite la juste la, la juste la moyenne. mais dañoo gis ne euh, gannaaw bi nga xamante ñàkk nañ final bi. ñu ngi ñi ñi leen Sénégalais yi accueillir xaw na doy waar est-ce que yow dalaa que yow nga dem amoo ndam nga ñëw gars yi accueillir comme ça. am na lenn loo xam ne que c'est loo xam ne que. nit yi kenn forcé wu leen ñu génn ñoom ñoo génneel seen seen seen seen coobare bopp. Mhm. ñoom ñoo jël seen décision bopp ne dañuy dem génn ak accueillir suñu gaynde yi loolu moom mënoo si wax dara mais bu fekkoon ni que nit yi ñoo leen poussé pour ñu def ko là d'accord mais leen loo xam ne c'est spontané moom. Mhm. c'est y a un message à décortiquer am na est-ce que am na message bu nekk ci suuf. Euh, en fait c'est au jour de recevoir de de comprendre cela parce que def ni. yow ba dem ton objectif c'était d'aller prendre la coupe dem nañu jëluñu coupe bi mm-hmm. ñi ñibbisi ils sont arrivés jusqu'en finale d'accord mais ñi ñibbisi ils ont eu accueil bu demee ni mm-hmm. lii foog naa ni que c'est un message par rapport à la prochaine CAN mm-hmm. que prochaine CAN moom c'est la coupe ou rien je pense que le message est assez clair peuple bi déjà wóyal nañ leen ko bu leen découragé bu leen découragé. Mhm. donc ça veut dire que bu leen préparez-vous pour la prochaine CAN la prochaine CAN ce sera dans ans. il faudra se préparer en conséquence sachant que amul beneen issue c'est le titre ou rien du tout. Ah et je pense que ce sera plus difficile parce que c'est pas évident que. tournoi bi dem na final egg na final que prochaine CAN. dana dana war a dem final. Mhm. on l'a vu Cameroun a ngi tournoi bi passé moo ko gagné en 2017. tout à fait bii nii mmh. soriwul sax. il éliminé assez tôt. Mmh. donc ça veut pas dire les contextes changent. Mmh. chaque fois les matchs se succèdent mais ne se ressemblent pas. donc il faudra prendre ça en conséquence. man dama laaj aussi 2002 euh, c'était comme ça dañoo ñëw final ñu toog. ñëwaat 2019 même chose ñëw final ñu toog. ñëwaat li nga xamante ne mooy suñu U20 yi. deux fois final tamit mu nekk la même chose. lan nga jàppal mooy la moo nekk le problème des Sénégalais avec les finales. ah avec le, chaque, année, chaque, chaque année, finale. est-ce une malédiction. final final c'est un match c'est un match différent des autres matchs. Mm. parce que final lu muy lu muy lu muy tënk moo bëri. Mm-hmm. mais bu dul benn yoon suñu mën a wax mais Sénégal muy junior. ah mais mais le problème est que c'est pas le même groupe c'est pas le même staff. donc loolu loolu mooy loolu mooy def différence bi. bu fekkoon ne mën nañu wax ni que par exemple le groupe de groupe bi nii bu joué final bi bi euh, barki dem vendredi. bu fekkee ni c'est le même groupe qui va jouer encore une autre finale dans deux ans en 2021 ñi ñëw échoué là mun ni que y a y un problème parce que ñoom euh, groupe bi danay ne ni que ñoom ils ont l'habitude ils ont déjà joué une finale ils savent ce que c'est une finale mm-hmm. am nañu expérience bi xam nañu préparation bu mu laaj loo war a joxe ci finale et tout une finale ça se joue pas mm-hmm. ça se c'est ça qu'a fait Algérie loolu la def mm-hmm. Algérie dafa ñëw il a pourri le ñëw ils ont donné le ballon au Sénégal Sénégal di jéem a développé di kii saa yu ñu enclenché benn action offensive ñi pàdd kenn jàpp kenn yàq action bi là tu es obligé de recommencer à zéro ñoom ils ont marqué un but assez tôt mm-hmm. ñëw taxaw nag nee ni tey moom pare nañ si dañuy nawetaan affaire bi c'est ça qu'ils ont fait le mm-hmm. Sénégal nag jéem a jaar beneen yoon war nañ jéem a beneen issue jéem a jaar beneen yoon pour jéem a contourner bloc Algérie bi mm-hmm. mais ñoom ils sont venus jouer final bi jéem ko rafetal final moom final la noo mun def pour gagné ko def ko pour gagné ko. Mm-hmm.

arbitre xamoon nañ ne sud africain bi moo mais lan mooy expliquer ñu. je pense que là y' a je jum y' a eu erreur. Ah ah. l' arbitre sud africain musuñu ko ne mooy arbitre final jamais c' que nit yi ñoo nouvelle. mais la jógee loolu xam fu mu jógee. mais waa CAF ñu ko dugaloon seen waa CAF ñu ko dugaloon seen seen compte a eu erreur Sénégal délégation sénégalaise depuis depuis bu yàgg. xam nañu que l' camerounais moom officier. bon xam nañ ko donc nouvelle euh, kii kii bale tuit ba bu mu jugee mhm. nii que c' est l' arbitre sud africain moom la ñu nommé xamu fu mu jugee mais ça a été une erreur mhm. donc arbitre sud euh, ak ay images yu mu bëgg ñu seetaan ah euh, maa ñu jox image yi ñu seetaan ak triomphal bi nga xamante ne defal nañ ko Lions yi donc loolu dinañ ci ñëwaat léegi nii incha allah en attendant madame Tamba am na lu mu bëgg laaj l'ancien international euh, toujours rek ñu resté ci ak euh, euh, finale Sénégal Algérie. juste dellu soit rek ci. choix arbitre bi parce que comme ni ko Babou waxee nee nga erreur la certes mais est-ce que Sénégal amul woon possibilité def euh, genre rip pas riposte mais bañ. recours recours hmm. mais mais pas Cameroun parce que pour man Camerounais yi yàgg ouvertement yàgg nañ ñoo wan ne mooy loolu ñoom moom ngeen hmm. fu ñu nekk rek du ñu neexle pourquoi Sénégal deful recours ba mu xamee ne trio arbitral bi ce sera des Camerounais. ah non ça ça c'est laissé à l'appréciation de la fédération ñoom ñoo ko waroon def bu fekkoon ñoom ba ñu nommé arbitre Camerounais bi mais que yow yaa arbitré bu fekkee ñoom gis nañu que arbitre bi euh, Camerounais bi am ay doute donc ñoom réclamation au niveau de la CAF mais que nee nii ñun pas de cet arbitre essayer de changer un autre arbitre mais ils l'ont pas fait ñoom ñu bàyyi mu jàll parce que wax ji sax li tax mu rumeur bi gën a mooy que ñu bëri dañoo algérien yi ba ñu sud africain yi ñoom sud africain bi du du arbitré après que lañu indi camerounais moo tax mu metti peut être sénégalais yi ba ñu enflé rumeur bi bu Parce qu'on l'a vu tout récemment en finale euh, de la Champions League, Ligue des champions africaine, il y a eu d'énormes problèmes mmh, à mm-hmm. cause de l'arbitrage. Mm-hmm. Donc c'est tout le temps un éternel recommencement. Chaque mm-hmm. match euh, compétition africaine, tu vois des problèmes de ce genre. Mhm. arbitre bi chaque fois il est décrié et tout. donc je pense que c' est waa CAF ñoom ñoo war a jël seen. Euh, responsable jël seen matukaay. Mhm. jéem a euh, defaraat xoolaat arbitrage seen africain. Mhm. jéem a créer ay formation euh, jéem a élever niveau bi parce que en compétition africaine nga xam ne que Mondio Vision Mondio Vision la c' est regarder partout bu ñu gisee ni niveau africain l'arbitrage est est faible. pense que c'est pas c'est pas c'est pas bon pour l'image du football du bon football image. africain déjà tey jii nii soo xoolee au niveau de la CAF on amène une femme comme euh, Fatma Samoura qui est oui. secrétaire générale de la, de la FIFA ñu indi ko pour mu chapeauter euh, la CAF mm -hmm. parce que on sait qu'il y a des problèmes mm -hmm. donc c'est à ñun suñu biir xam nañ que y a des problèmes ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp jéem a réorganiser waat parce que ndax lu ñu mënti wax depuis l'arrivée du de président Ahmad Ahmad mm. y eu des problèmes yoo xam ne xamoo fu mu jógee mm. nii dañuy indi bu subaa ñi change indiwaat leen y a d'énormes problèmes yoo xam ne que il faudra mm. tout revoir mm-hmm. parce que c'est rafetul si mais est-ce que à chaque bu nañ ko bëgg di basé wu tamit ci ay arbitre est-ce que boo footballé ni nga war a footballé teg ko fa nga ko war a teg est-ce que dina jar ñuy wax arbitre arbitre arbitre parce que à un donné ne euh, ñu bëri ñu ngi doon wax ne euh, amoon nañu euh, parce que boo xoolee contre match match loxo Ghana bi ah. man damay ne la ñoom ñaar ñoo nuroo pratiquement parce que bougé wul loxo bi ah, ah. Euh, man sax arbitre bi dafa mel ni sax ñun la faraloon sax man à presque des 35 premières minutes yi arbitre am na yoo am na ay carton jaune algérien waroon nañu ko si match bi am na sévère yoo xam ne ñu ngi ko a sévir. gaaw a sévir génne peut-être am na benn moment boo xam il faut il faut il faut avoir une certaine psychologie ci biir match bi pour mën a tempérer et puis gérer final bi comme ça final bi ba ñu am ay heures ba ñu euh, man fi ma bëggoon ñëw rek mooy euh, ci biir match bi man sama seetlu gu njëkk mooy que je les ai beaucoup plus sentis ci seen match contre les Tunisiens dafa mel ni ba ñuy ñëw dañoo àndoon ak fugg wala arñe mhm. boo xam ne dañoo meroon. te ba ñu yegsee algériens dañoo raay alors que ñooñ xam nañ ne que ñooñu ñooñu dooroon man j'ai pas senti cette vivacité xaw nax. Euh, boobu boobu seetlu jot nga ka am mhm. et que ils étaient beaucoup plus euh, euh, entre guillemets un peu plus sauvage <laughs> quoi c'est-à-dire féroce voilà mi entre guillemets c'est-à-dire pas de manière péjorative donc voilà man loolu laa gis te xaw ma si la remarque est la même de votre côté contre Tunisie en première période d'accord mais en seconde période moom on a sombré contre la Tunisie mhm. on a souffert contre la Tunisie quand tu vois que à la fin du match contre la Tunisie suñu gardien lañu élu homme du match. Mhm. donc ça veut dire que sonn nañu on a mhm. souffert. mais contre l'Algérie ça a été copier-coller la woon par rapport ak suñu match de poule bi. Euh, Algérie ils étaient plus agressifs. Mhm. dañu ñëw ils étaient plus agressifs. mbëkk di jàppante def lu ne. yàq match bi donc ñun ñoo waroon fippu. côté boobu jéem leen imposer euh, défi physique boobu ñu imposer. ñun tamit ñu mu am répondance suñu si suñu côté. mais on a été un peu laxiste de ce côté. et donc loolu moo tax suñu milieu terrain bi en finale on a on les a pas vus. Mm-hmm. que ça soit Gana. oui Alioune Ndiaye. Ah ah ah mm-hmm. donc loolu moo euh, ils ont compris cela mais tout cela. quest partie de l'expérience des deux coachs. on a vu une certaine ex, euh, une certaine différence parce que soo xoolee euh, euh, l'entraîneur de l'Algérie Bal Ben Madi moom il a un vécu bien que c'est sa première CAN. Mm -hmm. il a fait juste même pas un an encore à la tête de l'Algérie ça il a fait pratiquement dix mois. Mhm. moom. Mm -hmm. il a, il a eu un cursus. Il est passé dans des clubs, mm -hmm. dans le golf. Qatar. Il a pris l'équipe nationale du Qatar, il a fait des résultats, après mu delluwaat si club encore avant de venir dans, euh, avec l'Algérie. D'accord. Tandis que Aliou Aliou Patouma moom on l'a on l'a on l'a parachuté, euh, parachuté en équipe nationale rapidement comme ça sans qu'il y ait am am un background. Un net voilà. Donc loolu moo loolu moo loolu moo une, une, une certaine différence. Soo xoolee si les matchs de poule bi contre l'Algérie avant le match, mm -hmm. euh, Belmadi il a dit nee na que Aliou si biir équipe nationale la commencé jàng coach. tandis que moom il a fait il a fait ses gammes. moom mbapat na quoi comme ni nga waxee moom mbapat na mbapat na <laughs> donc tu as senti cette différence moom il a su. comment gérer son groupe. Mm-hmm. et pour obtenir ce qu'il a obtenu. très bien dinañ dañ ciy dellusiwaat parce que euh, li mu fi mu laal nii dafa am solo loolu ci euh, diggante ñaari coach yi différence bi et tout euh, parce que man damay wax ku la dóor aller dóor le retour mooy wane ne moo la mën. moo la gën a pare téeméeri yoon te it booy ñoom dañu wane woon ne ñoom ñoo gën a bëgg li nga xamante ne moom mooy coupe bi nañ seetaan benn reportage bu ñu suñu. ndaanaan réalisatrice du ñu proposé ñu xool retour triomphal bi nga xamante ne euh, sénégalais yi de manière générale réservé nañ ko euh, les lions euh, du Sénégal ñu xool ko te dellusiwaat c'est important euh, lii nga xamante ne euh, sénégalais yi citoyens de manière générale réservé woon nañ ko euh, les lions du Sénégal Euh, gis nañu euh, topp bi ñu leen topp aéroport Léopold Sédar Senghor ba dem fi nga xamante ne moom mooy euh, palais de la République am na nag ñu bëri ñoo xamante ne yónnee nañ ma ay message di wax ne pourquoi ñu changer destination parce que ñoom waa jam ñaajo aussi waa jas ñoom ñoo ngi doon xaar ah ñi nga xam ne ah oui bien sûr parce que nee nañ benn léegi aéroport boobu la ubbi uh-huh. ah, bu nekkee ubbi nañ ko kay te booy départ foofu 24 heures avant gars yi yi fi la Euh, booy foofu la ñu. bu ñu jëloon coupe bi moom fa la ñu waroon fa la ñu wàcc. fa la ñuy wàcc aywa bu ñu jëloon coupe bi la ñuy gën a wàcc fii nag ci gën a wàcc fii nii. lépp <laughs> seen avion bi naan. mais xam naa avion avion. <laughs> sa mbokk séeréer yi ah, yàlla saa dee xew loolu <laughs> ay kan lañ ñaar ah, donc très bien euh, mais euh, Cheikh Sidi c'est vrai aujourd'hui ah, am na ñu bëri ñoo wax ne dañu ne dañuy dellu si waat la ñu waxoon ci ba bi ñuy dem kaan ñu ne euh, jeunes yi am nañu qualité yëpp mais caractère bi moo des. Mm. est-ce que du dañu dañu ñëw ci caractère bi euh, face à l'Algérie. Mm. je pense que contre Algérie moom euh, que ça soit le premier match phase final bi yëpp on a manqué on de de de caractère donc loolu moo tax. Euh, ñaari match yëpp on les a perdus avec le même score avec la même manière et que foog naa ne nit su la su la mbéjee. Mm-hmm. su dellu see moom doo nangu mu. te mbéju mbéju kanam moom. ah yaa ngi fayal sa bopp doo nangu doo nangu mu su la mbéjee droite doo nangu mbéj la mbéj mbéj la gauche. Ah donc il faut il faut am euh, une certaine réaction. Mm-hmm. et je pense que lors de la finale on n'a pas trop senti. on partour pas trop senti gisuñu ko. Mhm. Euh, réaction boo xam ne moom moo noon tax euh, équipe bi gagné gagné gagné finale bi. te on était tout près du but foog naa ni que mm, soo xoolee parcours ñaari équipe yëpp. Mhm. Euh, Sénégal ah Algérie lañ doon xëccoo première place su groupe bi. Mhm. te man bëggoon naa Sénégal jël première place bi ba parcours bi. Algérie jaar. Sénégal jaar parcours boobu. Mhm. jaar jaar jaar yoon boobu. Mhm. parce que parcours am Nigéria am Côte d'Ivoire ça a été très difficile. Mhm. Algérie ay grand rek la taseel si yoonam. te Sénégal soo xoolee toujours contre les grands dafay am problème. Sénégal. pratiquement mun naa wax ni si final bi contre Algérie si lañ tasawaat ak benn grand. peut-être ah. mun nañu wax Tunisie xaw na tane tuuti. parce que Tunisie pratiquement soo ko gisee. match de poule dernières années yi match de poule lu ñu wane yëpp moom c'était pas c'était rien du parcours boobu bëggoon naa Sénégal jaar foofu jaar si difficulté yooyu ba egsi ba ba egsi ba final ça été dina nekk benn très bien baal ma ñu jël kenn ci euh, buumu jokkoo bi 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum ah, allo bonjour salaamaaleykum waaleykum ah macha allah ah, kooku dafa mel ni sous-préfet la de waaw déggin bi déggin bi néew na euh, maanaam boo ñu mënee yokkal tuuti rek s'il vous plaît bu ko defee ñu mën a jokkoo ak euh, sous-préfet bu Dakar. Euh, plateau non mais bien. waaw bien. waaw yow yaa ngi dégg bu baax ñun tamit ñu ngi lay ñu ngi lay dégg bu baax noo fanaanee naka suba si. sant yàlla alhamdulilah. macha allah alhamdulilah donc tout d'abord li ñuy tàmbalee ak yow mooy nga wax ñu rek sa jàngat de manière générale li nga xamante ne moom mooy match Sénégal ak Algérie ci finale bi. Euh, damay commencer par féliciter Lions yi féliciter staff bi féliciter le ministre des sports féliciter état du Sénégal ak chef de l'État conditions yi ñu leen mettre pour ñu mën a yegg fii. Euh, Nicolas su fekkee football il faut ñu xam ne sport la au départ il y avait vingt quatre équipes yoo xamante ne ñoo nekkoon ci liste bi on est arrivé deuxième yaakaar naa loolu war nañ xam ne kuy dem kuy dem xare euh, mën nga am victoire mën nga am défaite. parce que mhm. équipe yi toog mooy Égypte nga xam ne. Égypte kenn gënu ko bëgg coupe bi moom mi ko organisé bon nag ñun ñi nga xamante ne tey dañ jóge fii dajaloo dem jël deuxième yaakaar naa loolu lu am solo la donc li may mën rek mooy téere téere chapeau bas au lion et le duc aussi c'est un peu il faut il faut oublier mm. la CAN de de 2019 se remettre au travail parce que 2021 teel lay commencé. te la commencé donc nañu continuer liggéey ci fànn boobu pour ñu xam ne sport sport la. Mhm. dañuy am dañuy gagné dañuy perte bu ñu gagné na nekk fair play bu ñu perte na nekk fair play. te mhm. ñu xam ñu tirer les maintenant les enseignements et les causes yi tax ñu perte loolu tamit sur les balles arrêtées sur les pénalties sur l'organisation du jeu. Mhm. incha vraiment. très bien maanaam boo ñu mënee yokkal tuuti rek volume bi pour ñu dégg bu baax comme ça ñu mën a euh, ñëwaat ci yenn questions yi mën ko relance mais euh, am na benn question bu baax bu laajte léegi nii mu ne euh, dañu gis ne a chaque fois loolu moo ñuy dal dal nañu en mille 2002 dalaat nañu ak les U20 dal nañu en 2019 quest que qui l'explique à chaque fois bu ñu demee ci cappandaw ba rek desul lu dul ñu indi ndam li rek ñu def échec. oui échec Nicolas. du lu du lu du lu ñu bëgg parce que xam naa ndaw yi fa nekkoon kër gën leen a bëgg coupe bi euh, yi fa nekkoon kër gën leen ko bëgg comme ñun ñi aussi sagam ñun ñoo ko mën a toog di seetaan di ko bëgg massa ñi loolu simmee ko di daw ak di organiser yaakaar naa loolu ñëpp euh, ñoo ko bëgg mais li am solo mooy kenn loolu ma ko waxee euh, football nekkul benn compétition Sénégal yàgg na nekk pays de football parce que dañuy fournir mais il faut tirer les enseignements ensuite que les techniciens aussi se am na ñuy defar ñi di yàq ñuy defar ñi di xalab du dem donc ñi war a jàpp ci football bi ñoom techniciens yi ñëpp ñu war a jàpp ci football bi àndi seen contribution mais parfois guerre bi guerre bi fa lay commencé alors ñoom ñooy xëccoo seen biir finalement le supporter lam daal comprend pas moo tax ki digg di bëri mais li am solo mooy nañu ànd fàtte défaite bi pour man bu défaite victoire la ah te peuple bi na ko population yi wane nañ ko. Mhm. donc sport day boole ay nit day dajale ay ay xol. donc loolu moo ci am solo pour coupe bi symbole la. mais li am solo mooy mooy gagner dans les cœurs te loolu am na. Mhm. am na benn question bu la euh, Mendy bëgg a laaj mais balaa mu la koy laaj dama bëggoon rek parce que euh, l'ancien international si Sidi Ba euh, mi ñëw partagé ak ñun plateau bi joxe na notu match bi nga xamante ne Sénégal joué na ko face à l'Algérie yow en tant autorité ban note ngay jox équipe bi c'est vrai que ñu ngi leen di encourager bu baax a baax a baax di ñaan 2021 ñu indi ndam li mais Euh, moi je je me ah? Ba entraîneur la mën na joxe note. mais man je me présente. maa ne maa ne maa ne volume s'il joxe. ma ne du ma joxe note laa wax. ah doo joxe note. <laughs> non non parce que du ma entraîneur duma technicien. d' accord maa koy bàyyi technicien ñu joxe seen note. man je me préserve quand même de les féliciter de les encourager. tout à fait. très bien Mendy amoo question boo ko bëgg laaj. parce que moom du du domaine am. donc. Euh, mais sénégalais la. sénégalais la waaw mais wax na te mu ngi mu ngi question ñu préparé pour moom. mu mu ngi sàmm bu baax ci suñu kaaraange. <laughs> Euh, jamono ji nag actualité la ñuy waxtaanee ak moom euh, Cheikh da nga am question pour euh, sous-préfet. non amoo ah, question pour moom euh, moom mii nga xamante ne euh, suñu kaaraange rek moo ko tax a jóg ah euh, lépp li nga xamante ne rek moom moo ñuy sàmm ci lay liggéey bés bu jot moo war a sax ñu koy duppee Jack Bauer ndax efficacité am ak disponibilité mais ñoo ngi gis ne taxawal nga benn li nga xamante ne mooy commité local développement boo xamante ne def nga ko foofu ci sous préfecture dakaar Plateau nga ne préparation des nawetaan bilan ak perspective bilan bi lan lañ ci mën a jàpp. Bon, on avait euh, dañ ko convoqué woon le vendredi passé. Oui. pour préparer comme nawetaan comme chaque année. Mhm. bilan bi euh, waa ODCAV ñoo koy tiré ak zone yi nga xamante ne ñoom ñoo ma concerné maintenant pour les perspectives pour ñun mooy euh, organiser de nawetaan sans violence ñu xam ne les ASC association sportive et culturelle la. Mhm. sport moo ko tax a jóg ak culture mais du xeex. Donc euh, l'objectif c'est de bannir la violence dans les quartiers, dans le stades et aux, aux abords des stades. parce que match bi fu bi ñu fubalee Demba Diop wala mhm. ay histoire di am ba bët set ci biir Médina ci biir Gueule Tapée Fass Colobane wala biir Plateau nekkul sport maintenant pour pallier à tout cela dañu dajale acteurs yëpp muy la jeunesse muy les bajjenu gox muy euh, euh, les imams les chefs de quartier et ñëpp mhm. vraiment autorités yi les les locaux ñu ànd nekk benn pour que ñu xam ne sport foo la mais du pour xeex donc loolu moo tax pour bañ la violence dans les stades et aux abords des stades et dans les quartiers moo tax ñu organiser effectivement ci CLD la. perspective bi lu ñu mën xaar. perspective bi mooy bi euh, des des des des naissances sans violence. d'accord. une jeunesse engagée dans les quartiers dans les écoles dans les universités pour euh, euh, atteindre l'objectif zéro déchet. Mm. ak veiller sur l'environnement et le cadre de vie. jàppale le ministre euh, Abdou Karim Fofana mag bu rëy ci biir euh, biir ci biir kii bi. waaw man monsieur Diallo gannaaw bi ma la jaajëfalee li nga teel a yeewu ñëw ñëw répondre li nga xamante moo di suñu invitation kii mooy Diallo ma xam naa ko xam naa que chaque année dañuy def li nga moo di maanaam seen seen réunion préparatoire yi mm-hmm. jëm ci wàllum nawetaan mais dañ teewul chaque année bu ñu ko defee lii di violence day gën di yokk mm-hmm. est-ce que jàpp ne gars yi dañoo war a maanaam ut beneen formule xool ni ñuy defaree ni ñuy defaree nawetaan parce que chaque année muy Dakar muy si banlieue parce que man dama am benn émission boo xamante day wax waa mbirum nawetaan chaque année mooy dama koy def mhm. mais teewul boobu tey li nga xamante ne moo di violence bi day li nga xamante ne moo nawetaan yi est-ce que tamit jotul ñu changer li nga xamante mooy formule ni ñuy defaree nawetaan man je aujourd'hui euh, je aujourd'hui euh, maa ngi pendant les vacances pour ñu bañ a verser dans la violence et dans la débauche. Mhm. te gis nañ que effectivement phénomène boobu euh, nekkatul une donc c' est l' occasion pour que effectivement que tous les acteurs ñu taxaw repenser les navétanes seet tey naka lañ koy réorganiser waat naka lañ koy réorienter pour en tout cas mu nekk mu répondre vraiment aux besoins parce que état bi lu mu mën mooy mettre en place le dispositif institutionnel ensuite euh, accompagner leen avec nga xamante ne ñoom ñoo ko moom. mais pour ñu mën ko mériter il faut que tey ñu xool naka la ñuy def ba adapté les nawetaan au développement. Mhm. lu mel ni vacances citoyennes nawetaan am nañ ci place. wax na environnement bi Sénégal zéro déchet occupation illégale anarchique yooyu yëpp nawetaan am na ci place. Mhm. donc la nawetaan c'est pas seulement le football. on on ne sent pas culture on ne sent pas les autres disciplines. football n'est pas seul seul seul donc je crois que il est effectivement temps très bien ok euh, monsieur Diallo man ci euh, fi nga jeexalee sax foofu laay euh, tàmbalee pour éradiquer li nga xamante ne mooy violence fitna gi ñu nemmeeku ci nawetaan bi mhm. dañ ne ASC te yaakaar naa ASC du côté football bi kase parce que côté culturel bi aspect culturel bi mhm. on a toujours tendance à di ko bàyyi ginnaaw est-ce que bu ñu bu ñu mboolee li nga xamante ne mooy aspect culturel est-ce que nekkul moyen pour tax fitna googee ñu gën koo mu apaiser parce que tamit culture dafa am solo ci ASC yi te ci ASC yi la bokk te nañ bàyyi tout le temps sport bi mm. di ko en avant culture bi ñu koy dellu ginnaaw ci wàllu nawetaan yi est-ce que mu ñu jaaree foofu gën a dalal xel yi daal effectivement loolu nekk na une des solutions nekk na une des solutions boo xamante ne peut mën na indi euh, li éradiquer violence bi ci biir nawetaan yi mais le plus important d'abord jeunesse bi moo war a am conscience que violence bi amul place ci sport vraiment li la culture nekk na un aspect parfois aussi euh, l'engagement citoyen muy benn aspect bi te boobu ëpp solo. Mhm. ñu xam d'abord lan mooy nawetaan yi ak aussi naka la ñuy fexe ba nawetaan nekk tey du amal affaire bi njëriñ mais boo seetee que bu nawetaan amee tey population yi ñooy traumatisé wu bu match bi jeexee du nekk ci jàmm te population yooyu xale yi seen kër la ñuy génnee dafay wane que ni rek d'abord dans les maisons dans le quartier et vraiment au stade partout dafa war dañu war def benn coalition autour des jeunes. pour ñu mën leen tenir un langage ñu xam li xew te li xew mooy que souvent dañu ko xamul parce que ñu ciy versé souvent c'est pas les joueurs mais c'est l'entourage de ces joueurs là mooy le social et le social là c'est dans les maisons la culture aussi tey nekk na une réponse parmi les réponses mais je crois comme ni ma ko waxee du benn amul solution magique il faut que ñëpp jàpp ci ñëpp xalaat mm. ku nekk ci xalaatam pour ñu mën a arriver en tout cas à bon port Valérie pour alors euh, man xam naa damay daal di rebondir rek euh, ci leneen mooy euh, fan yi dañoo gis ne que dañoo daal di suspendre li nga xam ne moo di construction des immeubles mitoyens. Hmm. gannaaw ba jógee ci chute bi nga xam ne moo amoon ci. avant-hier donc voilà mercredi bi. ci ville bi rue Vincent bi. donc loolu est ce que nekkul jumtuwaay boo xam ne dañ koy yéex a jël parce que jéeg saay suspendre ko gaa daanaka ñi ci bëri ñi ci commencé woon tabax daal nañ koy arrêté mais hmm. que tamit gënul woon balaa nit di tabax ñoom ñu jóg daal di saytu balaa ñuy def euh, lool nga xam ne moo di seen arrêté balaa investissement dugg je crois que loolu erreur de communication la woon euh, journaliste bi rendroon communication bi moom ma def erreur mais li ma lay préciser mooy suspendre ñu les constructions mhm. fii accident bi amoon mhm. bâtiment bi bi nga xamante ne moom nekkoon ci wetam te ñu autorisé ko moom lañu suspendre mais il n'a jamais été question de suspendre les constructions. d'accord boobu dafa am accident bu fa am il paraît que ñu saytu ko isoler ko sécuriser ko pour mën a xam lan moo waral loolu. Hmm. mais c'est pas une question que on a suspendu les constructions mais seulement la construction du bâtiment qui faisait l'objet d'accident. Hmm. deuxième problème bi mooy euh, peut-être qu'on ne communique pas sur ça mais direction protection civile bu dee bëccëg mu ngi ciy liggéey dañu recensé ci bâtiment menaçant ruine bari na mais il faut ñu reconnaître que moyen pour daaneel bâtiment yi du lu yomb ay million la ay centaines de millions la mais li am solo li am solo c'est pas ce que l'État seulement peut faire mais li am solo mooy nit koo xamante ne que war nga dugal sa famille na nga seet fan koy dugal bëgg lu yomb wala Dakar laa dëkk warul tax nga jël kër guy waajo daal nga di ko du dugal sa famille ki yor bâtiment bi tamit di ko loué mu ñëw def ci karo ba rafet di ko loué bëgg xaalis waral tax aussi mu jël njabootu jaamu di ko ci dugal pour gagner de l'argent mmh. le plus mooy ku nekk jouer partition pour que ñu bañ a am problème yi mel noonu mais état bi moom mi ngi ciy liggéey bu de l'intérieur mu si joxe ay directives vraiment mu ngi ciy soñu heure bu ne mu ngi ciy pour dire que on ne communique pas souvent assez sur ça mais le travail continue tous les jours et vraiment dans tous les aussi dans toutes les circonscriptions très bien mardi passé euh, le 25 juin gis euh, nañu ne def ngeen 25 euh, ju 25 juin waaw euh, def ngeen atelier sur la problématique de l'état civil procédure ak mécanisme de déclaration à l'état civil donc loolu lan lañ ci mën a jàng lan lañ ci mën a jàpp. loolu liñ ci jàpp conclusion yi ñu tiré woon rendre nañ ci compte parce que dëkk soo nañ ay élèves yoo xam te ne mënuñu woon def à état civil. loolu il fallait trouver une solution par rapport ak loolu ensuite audience foraine yi nekkul rek luy régler tous les problèmes parce que à Dakar problème bu waratul am donc état bu mettre en place des bourses familiales di ko conditionné ci ay euh, déclaration des enfants il faut population jël en compte que am doom da nga a déclarer loolu yéen presque am ngeen ci bi ngeen ci war a jouer te mooy sensibilisation boobu donc il fallait ñu sensibiliser donc nit ñi pour xam d'abord phénomène bi muy commencé jël une ampleur ensuite solution bi nekkul seulement chaque fois def ay ay ay xale bu am six ans école warul mën a toog bés si war a def examen ñu ne ko amul état civil donc il faut ñu suñu responsabilité yooyu ensuite il faut ñu fexe ba jël si loolu dootul amati heureusement que l'état a pris des devants jël na ay mesures te xale yëpp ñi nekkoon si situation boobu def nañu seen examen donc à l'avenir maintenant il faut que loolu bañ pour mu loolu bañ am il faut ñu régler problème bi en amont loolu moo taxoon ñu organiser woon ko te réponse ñu bëri dañ may laaj nag ne ma euh, sous-préfet sous-préfet sous-préfet dañ koy dégg ci lépp ah ci marché yi ci interdiction yi et cetera euh, mais ñu ñu ne lan mooy rôle su sous-préfet sous-préfet lan mooy liggéeyam euh, ci gox est-ce que tey en tant que sous-préfet wu Dakar Plateau mën nga ñu gindi ci loolu nga xamante ne mooy rôle bi ngay jouer au sein des des des populations. bon li ñu war a xam ci synthèse bi rek mooy sous-préfet préfet gouverneur ak seen action yëpp délégué de l'État ñooy doxal kaddu njiitu réew mi. politique bi Sénégal bi président de la République définir ministre di ko appliqué. ñoom ñoo am charge pour pour animer ko au niveau de la base. donc bu ñu délégué de l'État représentant le ministre euh, le le premier ministre ou bien le le les du gouvernement. loolu rek dafa tënk wax bi donc lépp loo xamante ne ñun ay ndaw lañu ndawalu état lañ lépp lu xamante ne bi day doxal réew mi ci kanam ñun dañ ci dugal suñu loxo ñu mën a réponse yu positive d'une manière très très très très synthétique macha allah euh, bëggoon naa la nga bàyyi dem nga mais euh, Mendy de nee am na lu mu ci bëgg toxtal rek bu ko defee ñu tàggatoo ak yow très rapidement. préfet maa ngi lay nuyu. Hmm. Euh, ginnaaw bi nga xam ne nangu nga invitation Nicolas xamante nañu c'est quelqu'un de bien. parce que hmm. voilà mi ngi def liggéey bu am solo. bëri jom hmm. donc préfet gis nañ ni Nicolas wax na ko fi sànq. presque chaque vendredi ou chaque semaine yaa ngoon sur le terrain. yaa ngoon dans les opérations tête d'opération. un mois durant la CAN euh, kenn dëggaatul euh, match yi est-ce que noppalu nga bu baax a baax. ay ba noppalu noppalu xamuñu ko. parce que peut-être que <laughs> parce que noppalu ñun amuñu ko parce que nit sécurité nit ñi ak seen kaaraange amul amul amul amul amul repos amul pause. Donc à chaque fois que nous sommes en tout cas là pour écouter les problèmes et résoudre et apporter des solutions suivant les instructions de nos de nos supérieurs. Mhm. Euh, Comité social amul a amul week-end amul week-end amul heure supplémentaire. amul bàyyi quoi euh, amul bàyyi ala accu mais lan mooy sa il n'y la pas de secret secret la foi et la détermination. très bien am nga fi euh, turandoo euh, Djiby euh, Diallo cadreur la ci suba si nii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wane équipe bu ce matin seetaanu mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. et l'ensemble des employés de la 2STV ñu ngi lay remercier di la ñaanal encore une fois sunu borom yokk kattan bi mais aussi yokk grade parce que gis nañu taxawaay bu am solo bi nga xamante moom ngay def fii euh, ci mim donc ñu ngi lay sargal bu baax di nuyu madame Ili euh, di ko sargal bu baax di la bàyyi nga def le mot la fin un message à l'endroit des Sénégalais yi nga xamante ne ngi ñuy un peu partout à travers le monde. oui seen parti bi ngeen di def vraiment rafet na et puis di débat bi tamit gis naa ko ne def débat yu riche lay doon di leen ñaan alfa ngeen gën ko continuer élage gën leen dooleel ci fànn boobu mm-hmm. li ci des mooy que ne lancer toujours un appel à la jeunesse euh, pour mu nekk euh, une jeunesse quand même consciente nekk en tout cas les lancer lancer un appel aux citoyens ñu nekk euh, ci liggéey bi di bàyyi waa bàyyi wàññi wax bi daal mm-hmm. réew liggéey moo ko doxal mais du wax bu bari donc di ñaanal ñëpp jàmm quoi di ñaanal jàmm yéen tamit asalaamaaleykum merci beaucoup sous-préfet euh, bu Dakar Plateau ñu ngi lay sargal bu baax di la souhaiter de passer un bon début de semaine toujours avec nos programmes euh, sur la 2STV jërëjëf merci euh, dem na mu nekkoon euh, sous-préfet bu Dakar Plateau moom mi nga xamante ne euh, Djibi Diallo kenn dootu ko présenté muy dem nañ ba duppee ko Jack Bauer ndax taxawaayam ci société bi ak ni muy jëflante ak population yi moom xàmmeewul nag li nga xamante ne moom mooy pouvoir ak opposition li li mu xam daal mooy doxal liggéey bi doxal yoon ba ñëpp gis ci seen bopp dégg nga li nga xamante ne jot nañ ko waxtaanee ndax joué nga nawetaan donc tey jàngat bi de manière générale lan la parce que dañuy gis de plus en plus ñuy dem am na ay euh, comité yu ñuy organiser comme li euh, bu wax est-ce que jotul ñu ut beneen euh, formule dégg nañu moom li nga xamante ne tontoom la mais yow en tant que acteur ci koo xamante ne mos na jouer nawetaan lan nga jàpp ne que ne moom la ñu war a mën a def pour organiser ko pour que au moins nawetaan ñëpp gën cee gis seen bopp ndax violence bu bëri na. waaw violence bu bëri na trop que mën nañu jéem a trouver une solution en formant des stagiaires. comme saa ñu jël ay nit yoo xam ne que ay responsable lañ ñun dëkk si biir koñ bi ñi encadré jeunes yi suñuy dem stade parce que ñoom xam nañ leen ñoom ñoo dëkk si biir koñ bi et tout dinañ leen mën a neutraliser mais euh, di si biir koñ yi tamit di am di organiser peut-être ay réunion entre gosses yi di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom et tout parce que man gis naa ni depuis quelques années li xew si nawetaan dafa dafa dafa dafa ah année mm-hmm. tu vois des morts juste ay match match match football entre koñ mm. te li si gën a métti mooy ay xale ñoo fay dem mm-hmm. parce que c'est la jeunesse ay xale yu ndaw nay gis ñooy jóge seen kër dem seetaani match bàyyi fa seen njaboot seen seen seen waajur et tout mm-hmm. ñibbisi laajtee kenn ki ñu ne la des na stade bi mm-hmm. gaa ñu ne dafa dafa dafa mettre il faudrait que les gens s'organisent bu fekkee ni loolu mënuñu trouver une solution ñu arrêté nawetaan d'ici d'ici quelques années pour quelques années comme ça ni ki jéem a xool jéem am def un cas de conscience seen biir seen biir mm-hmm. jéem a def autocritique jéem xool ko euh, changer changer comportement parce que lii euh, euh, baaxul baaxul baaxul baaxul si réew boo xam ni que c' est des quartiers proches. yoo xam ne ñoom ñoo dëkk. maanaam ñiy reyante seen biir loolu dafa dafa dafa baaxul. ci loo xamante ne day dajale. loo xam ne day day dajale voilà voilà. donc c' est pas c' est pas c' est pas une bonne chose. d' accord il que les gens se sensibilisent eux-mêmes jéem trouver une bonne solution. Mm-hmm. rapidement comme ça pour euh, fléau bi daal ñu mën ko. ñu mën ko éliminer. sur ce sujet. oui euh, comme la plupart bu njëkk ba dañ mhm. parce que man je suis issu du mouvement navétane. Goudon bu baax Goudon membre de l'ODCAV vice président du NAIC. bu njëkk ba waaw waaw man xaal yoon laa bokk. <laughs> bu violence dafa pare woon uh-huh. donc on s'est rendu compte que Dakar euh, navétane yu bëri na mais moins de violence mais village yi da nga doon gis ay ce sont les dirigeants en jure euh, en cave donc du coup on a misé sur la formation mhm. des dirigeants ba ñu xam règlement euh, CQRP ñu am règlement euh, depuis article bu njëkk ba article bu mujj mhm. Mhm. finalement de plus en plus de nos jours ñi ngi évacuer ndànk-ndànk violence yi avec les stratégies que nous avons mises en place permettre nañu bu baax baax tey xale bu ñu dem ci terrain ñu mën a maîtriser bu baax baax du coup je pense que loolu mën a nekk euh, le camp partout sont les dirigeants d'abord ne gannaaw du dëgg dañoo sàcc donc booy nekk ci ginnaaw ci kaw yi du wàcc ci terrain bi ñoo mm. dirigeant bi wax na lii rek mm. loolu mooy dëgg acca ñu xeex du ñu comprendre donc dirigeant bi ñoo war a def autocritique quoi <laughs> amee dirigeant mel ne baabu ma day tooy lool non non non day jàpp ñàmbur du sedd ah bon moom day daaj rek baabu daa tàng <laughs> waaw booy la très bien mais mais mais bëggoon naa nga wax ñu très rapidement balaa ñuy dellu si waat ci kaan bi nga wax ñu euh, ci sa nawetaan lan moo la ci gën a marqué li nga dund ci euh, jamonoy nawetaan euh, ba may gagné coupe ak Kusum ak Koussoum. en 2007. 2007 en fait dafa tombé juste en fait c'était la fin de mon de ma carrière professionnelle. Mm-hmm. année boobu si laa ñibbisi. Mm-hmm. et que ma ñibbisi waa Koussoum dégg ni ñibbisi naa ils sont venus m'appeler en fait fa laa juddoo. voilà judo ñi woo ma ne ma daal dañu bëggoon a ñëw jàppale ñi et tout affaire yi nawetaan. si daal ah, pourquoi pas c'est ma dernière année ma retourné sama sama club de cœur. Mm-hmm. je suis retourné. Euh, depuis deux année boobu 2016 si la Kousum gagné gëj a gagné coupe. ah bon parce que waaw. kon est ce que waruñu la dénk Kousum nag. ah ça m'a très marqué parce que jour boobu. Mm. ba ñu joué coupe finale bi Demba Diop la ñu joué finale bi. oui contre Castel. contre mm-hmm. ñibbisi. mais yoon bi yëpp. c'était noir noir de monde xaaju guddi en plus à une heure du matin deux heures d'accord donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Mhm. et que euh, naa ni que moo xam ne que Fola juddoo sama maam sama kër maam muy foofu ba léegi nii. donc ça me ça me suit jusqu'à jusqu'à jusqu'à présent. jusqu'à aujourd'hui très bien Babou. waaw ñu ngi ci kaan bi de. ah ñu ngi ci naa nga bëgg am na benn question boo ko bëggoon sànq Dia ñu ngi ci waxtaan nga naan ma euh, Cheikh bu ñëwee bëgg naa ko laaj ndax onze de bi est-ce que dëgg dëgg dëgg ñoom ñoo waroon a départ <laughs> ah. allez waaw parce que Mbaye Niang Mbaye Niang gars yi Alioune Sèye dafa ñu ko forcé quoi. non Mbaye Niang. ay <laughs> baax euh, c'est un élément très important pour équipe nationale du Sénégal. Ça, c'est vrai. parce que c'est un plus. day se bat mais le problème est que il était diminué physiquement. il était diminué dafa amoon blessure parce que soo xoolee cuisse bi sax dañ ko mhm. Mhm. donc il était diminué euh, Aliou il a confiance en lui loolu moo tax mu maintenir ko. Mhm. mais war nañ dem benn moment boo xam ne que waroon na am un changement. même avant finale bi benn match boo xam ne ñii doon wax ne Mbaye Niang du jouer il est forfait mhm. peut-être Mbaye Diagne doon titulaire jour mhm. boobu pour man je m'attendais à la titularisation de Mbaye Diagne so mënoon nañ ko dugal may ko chance am jox ko mu am confiance ñi mhm. seet lan la mën a équipe nationale peut-être su doxulee Aliou mën a dellu soit si choix wu Mbaye mais Mbaye Mbaye Diagne ba léegi nii man on lui a pas donné sa chance mu mën ak lu mu mën ma munoo mm-hmm. mm-hmm. tu peux pas être performant munoo tu peux pas être performant donc ba léegi pour Mbaye Niang c'est une c'est un point d'interrogation mm-hmm. c'est à revoir que final bi dem nañ fa il a titularisé euh, Mbaye Niang Mbaye Niang oo xam nañu que il est en manque d'efficacité en avant lu ñuy laaj si moom dugal c'est sûr que mais Mbaye Niang moom dafa yàgg dugal but en fait wax dëgg fa neex yàlla daf ñoo yàgg sagal moom daf ñoo yàgg sagal mais mais mais li mu jot wax ci Mbaye Diagne est-ce que du excuse pour koo xam ne il est meilleur buteur. Mhm. Euh, y a pas besoin de vingt-cinq minutes pour euh, pour faire entrer un ballon. si je me fait, trompe. Euh, dugg remplaçant dafa metti. adaptation parce que les autres ñoom ñu ngi ci rythme match bi. te ah, yow soo duggee ci match bi déjà joueur su duggee terrain il te faut quelques minutes pour retrouver ton souffle. mais même bu dul loolu tamit bañ ko titulariser ba tey. aussi on n'a pas encore vu de but. non non non non ci Mbaye Diagne laa nekk. non non non non wax ma ci wax ma ci final bi. mais ci match yeneen yi ñu daan waaw day dugg. pourtant même match yi daan am fii nii Sénégal jotoon nañ ko si aussi titularisé. Demba Diop donc autant a moi la question c'est ce que day dugg au bon moment. ah mais. Ouais, mais même, même quand même il est titularisé le but ne rentre pas. même match yi fii nii yi nga ko yi nga ko jot a titularisé. tu mhm. sais le niveau en club et le niveau en équipe nationale ça fait deux. Ah. c'est pas la même chose. xaajul bopp le niveau en inter euh, euh, au niveau international est plus élevé que le niveau en club. dañuy gis joueur yu bëri ils brillent en club quand ils vont dans leur sélection nationale ils brillent pas. Mhm. donc Mbaye Diagne mën na ñëw peut-être demander un temps un temps d'adaptation. mu ñëw mu soxla ay deux trois matchs yoo xam ne dañ koy titulariser quatre matchs yoo xam ne dañ koy titulariser mu jàpp euh, jël repère am jàpp rythme euh, niveau international mm-hmm. et que Euh, am na yenn match yoo xam ne dugal nañ ko fii fii mhm. à Dakar. Léopold Senghor mhm. joué na. Mhm. peut-être chance dugal loolu ça peut arrivé à Mbaye Niang match yëpp passé peut-être moo doon qualification yi moo Sénégal. mais ñëw nañu euh, coupe du monde dugal na. il a marqué mais coupe d'Afrique bi ñëw na dugalul donc pas dans un jour sans. amoo mais Cheikh am na beneen débat tamit bu posé woo. mais na bëggoon bëggoon naa baax nga taxaw fii am na benn bii bii ñuy wane nii man bii bi de mënuma ko digérer ba tey. Euh, man bii la man ci basket ak football. parce que ñaari sport jot naa ko pratiquer. Eh, bu final bi final bi benn bii moo am. Eh, daf leen bi daf leen eh, moom mi nga xamante ne jot na def yenn yenn niveau yi damay dama doon dégg suñu coach bu nekkee basket Odonou Dakar Université Club da doon wax ne joueur dafay ñaaw njot c'est-à-dire mhm. une fois que ñu ñu ne yow bokk nga yaa bi ci biir terrain bi rek. dangay ñaaw jot ba keroog abi bi di sifflé wala ba keroog ñu lay remplacer. man geste bi bëgg naa maanaam indiwaatal action bi. waa ji dóor mu dal ci tànk Salif je m'attendais à ce que góol bi arrière di xool ba di ko toppaale. Mhm. ba fu mu jëm. Mhm. parce que en général damay gis góol yi di def noonu. Euh, mais bii nii gisuma loolu. Mhm. non mais en fait góol bi li muy def avancé. xoolal loolu la loolu la góol. voilà loolu la góol war a def. ah góol avancé pour wàññi parce que su génnee def deux pas en avant dafay réduire angle bi. d'accord dafay mettre en difficulté l'avant-centre ki ki bëgg a dugal. mais le problème mooy avant avant centre bi di egg si Sadio y a eu une succession d'erreurs avant. fii mm-hmm. ñi mm-hmm. perte bal bi. ñi paas Kouyaté Kouyaté soo soobu. raté gestam. Mm-hmm. womba foofu Salif Sané dafa am retard ci couverture bi. ba mu maanaam jox ma fu ñu ci milieu terrain bi waaw balaa bii bi ba mu amee retard ci couverture bi. waa ji jël ak central bi dem si si face face but bi ba léegi foofu dafa am retard parce que amoon retard. mu réduire espace bi. waa su dóoree moom dafay ñëw il va défendre debout day taxaw si tànk yi du taakale noonu. très te su ta su ñëwee défendre debout waa suy dóor espace bi dafay réduire ba nga xam ni. très bien su ko tegee en opposition bal bi day dellu day teg si tànkam changer direction mais de dem si côté camp yi. loolu succession erreur yooyu nag moo indi but bi donc Salif dafa couvert couverture euh, déjà perte de balle bi. Mhm. Euh, Kouyaté mal jugé ba euh, direction balle bi. Mhm. ba balle bi romb ko. Mhm. waa ji Salif oh, Sané couverture bi Salif Sané couverture bi en retard ba noppi léegi ba waa ji di avancé retard bi continuer ba léegi mu dem réduire espace parce que réduire mhm. waa ji peut-être dina changer idée dina ne sas bi dafa gàtt dootuma dóor dootuma dóor dootuma dóor mhm. donc yooyu situation yooyu yëpp nag moo indi moo bi d'accord mais man débat bi mu posé si question Aliou parce que démb sax ministre mu koy mu ngi invité si benn rajo de la place mu ngi expliqué ne ki nga xamante mooy Aliou Cissé am na chance pour mu des fi moo di bopp équipe nationale mais boo dëggoo tamit si réseaux sociaux bi dañu jàpp ne comme que Aliou def na 4 il a montré ses preuves war nañu mën seeti beneen beneen même bu dee sax beneen entraîneur locaux. ses preuves ou ses limites bon am na ñu naan c'est preuve c'est bon bref mooy loolu. parce que moom mooy sélectionneur bi gën a yàgg ci bopp équipe bi aussi. effectivement effectivement yi ne dafa lu mu jot lu mu jot a mën li mu jot a xam. Mhm. wane na ko léegi est-ce ñu ñu xool kenn bi même bu dee entraîneur local la wala xoolal benn koo xamante ne à l'étranger la nekk. Mhm. pour ñu est-ce que Aliou Cissé dafa war a dem comme ni ko gars gis-gis par soo xoolee par rapport ak obje objectif yi ko assigné woon. je bi c'était atteindre ko. la coupe. la c'était la coupe. Mhm. atteindre ko. Mhm. soo xoolee par rapport à objectif yooyu atteindre ko. donc mhm. ça veut dire que c'est un échec. d'accord donc il y a des mesures yoo xam ne euh, dirigeants yi war nañ ko jël. soo xoolee par rapport au parcours du Sénégal pour une nation africaine c'est pas dem compétition africaine c'est pas facile d'arriver en finale. Mm-hmm. ils ont fait le maximum ça il faut le dire. Mhm. ba arriver en ils ont fait le peuple. peuple bi gëm nañ ko jour final bi ñoom gëm nañ que c'est bii mooy suñu bos. Mhm. Sénégal gagner. et que il a su fédérer un groupe. ça il faut le dire parce que depuis longtemps équipe nationale déggoot aussi problème il y a mhm. a am il a créé un groupe. il a créé un environnement boo xam les gens se sont sentis bien dedans. Mhm. loolu ça il faut le dire parce que un un, un entraîneur loolu mooy liggéeyam. dafa war a dafa groupam sentir ñi groupe bi ñiy adhéré si projet am donc le groupe ils ont adhéré au projet de Aliou Cissé ils ont cru en lui ñoo moo tax yenn joueurs yoo xam ne que daanu woon ñu équipe nationale ils ont accepté de venir. d'accord donc il faut savoir faire le pour et le contre. am na yeneen côté yoo xam ne y a du négatif. am na yeneen côté yoo xam ne y a du positif. Mhm. maintenant. il a été nommé par des personnes maintenant c'est à assigné woon. le plus. négatif positif balance boo ko ci tegee octobre xam nga octobre laa ñu balance waaw nu positif la avant loolu mais xaaral mu tontu rek nga joxe question boobu nga xam ne nga ne <laughs> avant loolu. ah dafa ànd boo ko tontu ba pare man dootuma mën a. ah ñoo bokk ndey baay ah, est-ce que c'était pas une ambition de trop pour une équipe euh, du Sénégal bi nga xam ne dernière CAN. Euh, quart de finale yëm euh, bu ci mujj sax 2006 la woon je pense que demi-finale mm-hmm. nga ñëw face à des équipes comme Cameroun Algérie yeneen yeneen euh, tu assignes euh, des missions à Aliou Cissé nga ne ko andi ñu finale bi sans plus dire que wax ko à défaut de la de la coupe mm-hmm. en finale mm-hmm. est-ce que ce n'est pas une ambition de trop qui avant la CAN sur plusieurs plateaux sur plusieurs sur plusieurs plateaux ak ay euh, interview yu ma def ak certains certains journaux mhm. je l'avais dit je l'avais dit que man sama gis-gis mooy Sénégal na jéem a viser le carré d'as à partir du bi leneen lu stop ñu xam ne que c'est un plus viser tout de suite la finale déjà que Coupe d'Afrique bi passé gis nañu lu lu ñu daloon et que c'est très tôt ñuy viser finale bi dañuy jéem a xool 2021 suñu objectif dem gagné ji gagné gagné ji tournoi hmm. peut-être que 2019 suñu yàlla wërsëgalee ñu gagné coupe bi ñi xam ne que ñu sante ko yàlla ah. alhamdulilah mais bu waruñu ko def un objectif précis hmm. je pense que on a sauté des étapes on a sauté des étapes foog naa ne équipe soo koy defar hmm. danay dem par par étape donc euh, man coupe d'Afrique bii nii man pour man objectif bi woon waru woon nekk waru woon nekk est-ce que le peuple est face au dilemme du prisonnier oui bien sûr pourquoi non mais en fait le peuple le peuple le, le peuple est derrière l'équipe le peuple suit suit suit suit suit, suit l'équipe mmh. donc quand l'équipe fait de bons résultats le peuple est content quand les, les résultats sont négatifs mmh. le peuple est mécontent et là c'est le peuple qui est sorti ñoom ñoo génn seen bopp kenn forcé wala ñu génn seen bopp mhm. donc ça veut dire que peut-être que ñoom mhm. ils ont une satisfaction ñoo xam mhm. mais am na ñenn ñu am satisfaction am na ñenn ñoo xam ne amuñu satisfaction d'accord D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Toujours avec l'ancien international Cheikh Sidi Ba. Euh, di suñu euh, ganu bés bi ñuy waxtaanee lépp li nga xamante ne jëm na euh, ci résumé CAN 2019 ñuy féliciter encore une fois les lions du Sénégal ci taxawaay bi encouragé bu baax ki nga xamante ne ñoom ñooy Aliou Cissé le staff la fédération maître Augustin Senghor mi jiite woon délégation bi mais aussi ñu sargal bu baax ministre Makhtar Ba moom it ci taxawaay bu am solo bi loolu dinañ ci dellusiwaat ci njeexital bi parce que waxu prime nee nañu gaa yi moom dóor nañ leen ay prime ba ñu normal mais pendant ce xamante ne ils ont été biaisés toog nañu ay 12 ci ginnaaw ay primes yoo xamante ne euh, kenn joxu leen ko te pourtant euh, c' est le même drapeau moom ñuy défendre donc xam naa ne loolu xëy na euh, ci njeexital bi dinañ ci dellu si waat en attendant balaa ñuy dem ci clip du jour dañuy ànd a Mindi ah. Omar Omar Mindi ah? mu ñëw ci yëfu Guy Marius Sagna mi nga xamante ne mooy njiitu mouvement ah, France dégage. c'est ça. Euh, waaw mouvement moom jamono ji deuxième mandat de dépôt la am. Euh, mais mujj nañ ko euh, mujj na jàll. jàll na instant bi ni mi a jàpp mooy téye nañ ko ba pour le moment. mu ngi rëbës mu ngi rëbës mu ngi rëbës waaw nañ ko. donc pour fausse alerte. ah parce que bindoon na ñoom waa France dégage. Mm-hmm. waa FRAPP France dégage. parce que Guy Marius Sagna c'est un activiste. yow xam nga luy activisme. fii mm-hmm. ci Afrique fii ci adduna mm-hmm. bi. donc euh, au cours des de de la dernière décennie on a vu des mouvements citoyens yu fi juddoo mm. au Sénégal vous vous rappelez pour comprendre le plus important aujourd'hui ce n'est pas bu ñu analyser euh, le le fait de Guy Marius il faut aller au-delà de au-delà des faits mm. pour comprendre sa pensée pour comprendre lan lan les prôner en réalité. Au cours des dernières années on a vu que l'Afrique amoon na ay mouvement citoyen mm. tel que au Sénégal en a marre euh, euh, Filimbi Lucha en République démocratique du Congo mm. suffit comme ça mm. au Gabon mm. euh, ça doit changer au Tchad mm. euh Algérie li wax ba les euh, avec le printemps arabe que nous avons connu qui ont été euh, propulsés par une dynamique de jeunesse qui a envie vraiment vraiment affaire yi changer la changer direction pour un monde plus équilibré un monde plus juste mm -hmm. donc c'est dans ce contexte que vraiment ay activité ay mouvements euh, sociaux juddu ngir vraiment jël la place de la bugg ci dugg ci société civile pour jëm a xeex aux côtés euh, de de la presse mm -hmm. pour un monde vraiment ñu am information donc Guy Marius Sagna c'est dans ce contexte la créer activiste mm -hmm. donc muy yëngu ci d'abord mu jóge foofu créer front France dégage ñu jóge foofu bokk na ci front anti franc CFA avec euh, euh, ñeneen ñeneen ñoom Ndeye Babel Sow madame Niass mm-hmm. bokk ci ay ñeneen donc ci loolu la yaa ngay yëngu moom si front yu bëri yow Nicolas xam nga ko mm-hmm. dañ koy téye pour un un laps de temps ñu bàyyi ko après mu dellu ci activité donc il y a trois jours moom mu publier dans une euh, ci page Euh, trois choses trois publications lañ gis beneen bi c'est euh, affaire Tanor Dieng la woon mm-hmm. te c'est feu à l'ex-président du haut conseil des euh, des collectivités territoriales mu bind ko bon le contexte n'était pas choisi mais bu ñu c'était pas aussi le temps mm-hmm. mais bu ñu analyser de fond en comble on se rendra compte que y a de quoi échanger y a de quoi discuter mm-hmm. beneen bi mooy affaire Boun Abdallah Dionne moom bind ko donc gars yi dañuy bàyyi Afrique euh, hôpitaux Sénégal 59 ans après. Mm-hmm. y' a politique sécuritaire euh, sanitaire ñu dem faju ji France donc loolu ça fait mal aux gens. mais loolu c' est un constat aussi ah. waaw moom lu ma la sur le principe. bu ñu xoolee bu baax de fond en comble. d' mm-hmm. la table et échanger ko. maintenant peut-être c' est le temps et le moment choisi. Mm-hmm. bi mooy bu nga xamante ni procureur bi. loolu la wax tey nañ ko mooy fausse alerte bi nga xam ne moom nee ñu y na tanta attentat qui se prépare et attentat boobu euh, France moo ko nar a commettre. Mhm. maintenant man gëstu na boo ngeen ma woowee dem ci guddi. Mhm. et je me suis rendu compte que nee nañu c'est relatif à la base militaire française bi fi nekk. d'accord maintenant il plus de trois cent cinquante hommes militaires français. Mhm. ici au Sénégal nekk Ouakam. donc loolu nekk c'est pas seulement au Sénégal que base France nekk. ñi ngi Côte d'Ivoire ñi ngi Djibouti. ñi ngi Burkina Faso. donc loolu ñoom la ñu yàgg a prôné en pour que France lépp lu économie lépp lu euh, laal suñu réew lépp lu laal économie Sénégal Afrique yëpp France génne ci loxo am. Mm-hmm. ñoom ñoom ils veulent vraiment voir euh, le colonisateur mu ñibbi complètement. mais moom ci lan la sukkandiku pour passer loolu mu passé ci base. bon moom bu ñu si bu ñu xoolee bu ñu gëstu ba pale son avocat euh, maître Ali Kane nee na gii du moom moo ko bind. ah bon mooy collectif moo ko bind. Mm-hmm. bon man je me fie. mais la personne morale quoi Facebook euh, tu passes loo ci xalaat très rapidement. déjà a mis en avant li euh, Mendy doon wax par hmm. rapport ak euh, sunu chef d'État wala sunu homme politique yi li ñuy bàyyi sunu institut sunu structure sanitaire yi hmm. di fajo par exemple France. Hmm. mu nekk loo xamante ne. nañ ko wax parce que lu am la te dund waaw bu ko wax te dee de wax ko oh, te dund <laughs> parce que constat la boo xamante ne dafa wax li ñëpp di xalaat ci suuf mm. moom wax ko ci kaw mm. comme peut-être Mendy ni mu ko waxee peut-être que le moment n'était pas assez bien choisi mm, mais lu am la daal très bien léegi nag ñun li ñu ci mën a wax daal ci tënk pour débat bi clos mooy que gi nañ ko bàyyi mu dellu ko bàyyi pour terminer waaw génne ko bàyyi këram ça c'est le ressort de, de, de des juges maintenant force alerte terroriste bon on a vu que tous parce que aujourd'hui les, les enjeux géopolitiques du monde ça reste la question sécuritaire parce qu'on s'est rendu compte que le, le Sénégal pour la première fois mu organisé procès Imam Ndaw mm. Imam Ndaw donc mu am derrière ay ONG ay état mm. ñoo ko financé mm-hmm. donc loolu euh, Sénégal ñu ngi wone en même temps que mi ngi def ci prévention mi ngi xaar réew mi et puis moom waa waa France dégage jàpp nañ ni loolu France mi ngi jéem a dugal ci bopp Sénégalais yi que la menace terroriste elle est là présente loolu la ñoom waa FRAPP di di di di di di dénoncer di di contester bu baax a baax mm-hmm. maintenant tout compte fait euh, tee nañ ko dégg naa keneen ki nga xam ne seen xel màcc na ci wàllu wi ñoom jàpp na ni nous sommes dans un monde où ku ci nekk lu la nekk France ci boppam mënul té mënul tëj un citoyen français parce qu'il a dit tout simplement que y a une menace qui pèse sur la France mhm. dañ koy ñu ne dañ koy surveiller mhm. wala di ko topp activité am xam fa joge mhm. jógee information mais sur la base d'une simple publication qui en réalité nee na collectif moo ko bind et que moom mu partagé comme ni ñu partagé suñu publication yi bëri donc jarul woon ñu ñu téye ko dañ ko déglu mais téye ko ba yóbbu ko euh, nar ko tëj sa ça ça pose beaucoup d'interrogations sur l'indépendance de la justice sur les questions de l'heure et sur lesquelles le procureur en question doit s'autosaisir te très bien dinañ la bàyyi nga topp information boobu lu ci gën lu ci munti am rek ah, mu gën a fu mu munti dem rek ñu ànd ceeg yow ah, pour nga indi ñu ci ay leeral am na lu ci Valérie bëgg yokk très rapidement balaa ñuy dem ci vidéo parce que c'est très dommage parce que moom daf may fàttali tuuti suñu ex confrère Kémi Seba Kémi Seba donc mi fi nekkoon on a comme l'impression que les activistes psychologique wala psychiatrique parce que activistes yi ñu ci bëri dañuy ne est ce que doful sax est ce que ça mm. amul problème bopp mais euh, boo xoolee ba ci biir a biir ils disent la vérité ils mm. dérangent ñi nga xam ne moo di état mm. euh, euh, mais benn côté bi tamit dañuy wax na yenn yoo xam boo ko waxee da ngay tiital population déedéet du question de tiital mais ça les éveille un peu bu population bi day nelaw nous sénégalais on est assez paresseux waaw ñun daal ñun nañu lekk nañu naan ñu ngi si jàmm alhamdulilah waaw kay ma ngoog mais mais voilà nañ ah, jaamu yàlla d'accord mais itam baax na ci itam ñu ñuy yee tuuti ñu xam menace bii di ñëw peser suñu kaw euh, on a parlé tout à l'heure de santé euh, le ministre Abdoulaye Diouf saar moom nee na carrément ne que moom fii lay fajoo xam nga mm-hmm. ne ministre de la santé moom moom moo toog mu ne nañu bàyyi information yooyu comme quoi que ne euh, voilà képp ku nekk ci nguur bi donc voilà da ngay bëgg a dem faju ji autre part moom voilà assuré nañu ko moom mii fii lay fajoo sûrement c'est pour 30 euh, secondes 30 secondes oui mooy euh, le président Vladimir Poutine mm-hmm. nee na loolu après benn gestu lay doon on va parler des enjeux de la Russie mm-hmm. nee na l'Afrique nekk na jamono ji cimetière pour les dirigeants africains nee na un entrepreneur africain mm. un chef d'état africain ou un général africain saa bu amee poste yu gën a kawe Europe lay dem faju ji Canada États-Unis la dem def tourisme bi ah euh, doomam yi Europe la ñuy jàngee mm. bu dewee fii lañ koy suul très bien donc c'est un questionnement mm. qui laisse Afrique daal cimetière la daal ci ñun <laughs> waaw pourtant pourtant bizarrement kenn wax ko dara waaw waaw ah, Poutine la nag Poutine Poutine ñeme très bien vous êtes toujours en direct sur les antennes de la 2STV di souhaiter joyeux anniversaire à tous les euh, natifs de ce jour ñuy remercier bu Omar Mendy euh, ci li nga xamante ne yëkkati na ko muy Guy Marius Sagna ñu koy ñaanal liberté bu yaatu mu dellu këram nekkaat ci ay activités ndax loolu la Sénégal a baaxoo ñu seetaan benn vidéo du jour très rapidement le temps ñu souffler tuuti dellu soit sur ce plateau très bien donc retour euh, sur le euh, plateau euh, ñuy sant ñi nga xamante ne jamono ji ñoo ngi fêté seen anniversaire ku ci mel ni Astou Dione bokk ci 2STV bokk ci plateau ce matin c'est à tey dafay anniversaire donc elle a une bougie de plus ñu koy wax santé bonheur prospérité succès et beaucoup d'argent à Astou Dione ñu koy ñaanal nag ci 2019 bi balaa ñu ciy génn mu am benn géyeen ah benn benn géyeen bu jantal bu guerrier benn ah, guerrier wala benn géyeen benn géyeen guerrier benn guerrier ba pare sant Guèye. yàlla na ko fayeen takk ñëw dindi ko loolu am na solo. guerrier nag Tamba lañ sant yàlla def na loolu. Ah. <laughs> yàlla na ko séeréer takk yàlla na ko séeréer takk Nicolas yàlla na ko séeréer takk. yàlla na ko séeréer takk. waaw waaw <laughs> oui waaw. mais noonu la yàlla nga jar yow tamit ci ci ci ci ren bi. <laughs> non ni ko asay bu ma seetuloon dara sax dama lay jox taal ngol ngol sama nijaay. waaw da ciy baax lool macha allah waaw taal ngol ngol rek. ah waaw day day am solo waaw waay waay waay bañ na ay ca ba léegi ñu ànd ak yow ci njënd njaay mi. moo ngoog euh, Nicolas dañuy daal di desandi ak euh, suñu ay téléspectateurs nag xam naa ne fi mu nekk nii ci puisque ci njeexantalu njaay la ñu daal toon dañ leen di fàttali juste les prix donc euh, pagu 350 millilitres de 12 mi ngi jar 1500 pagu 12 millilitres bi nga xam ne moom mooy def 600 millilitres donc pagu de 12 boobu mi ngi daal di jar 2500 waaye ko ci bëgg itam xanal bàyyi sa kër teg sa fontaine euh, donc euh, fontaine boobu noonu li nga xam ne moo di bouteille bi ñu ngi koy jaayee 2000 francs donc képp ku ci bëgg a xewlu 88 628 14 13 ni ma koy daal di waxee ngeen daal ñëw ci 2 yi ñu daal lay defal euh, li nga xam ne moo di jox la sa sa njënd sa njaay daal daal di yegg si sa kër waaye itam bu ko weesoo ngeen daal di dugg fee nga xam ne moo dans les grandes surfaces neex na lool itam ngay dugg ci bërëb bu nekk nga ko fay fekk xam naa ne Nicolas bureau ministre yi si bëri fi li nga xam ne moo di Aquaterra waaye compagnie yi itam bu leen fàtte benn yoon ñoom itam ñu ngi jëfandikoo li nga xam ne moo di Aquaterra donc itam baaxoo nañ ko ci kër gu ne baaxoo nañ ko itam ci bërëb bu ne alors Aquaterra mu ngoog partenaire fidèle au quotidien très bien ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax Valérie Gayel baax ci euh, njënd njaay gis ngeen bu baax ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel un peu partout à travers le Sénégal ndax xam nga 14 euh, ba 15 régions yi ñoom ñëpp ñoo ngi ñuy bàyyi xel ndax suba si euh, ñun ñoo ko moom Wally Ballago Seck lañ leen tegaloon léegi nii ci morceau bu mu duppee Serigne Fallou Mbacké muy deuxième xalif bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye di leen fàttali di leen joxaale information ne Wally Ballago Seck moomu nga xamante ne mooy lead vocal du Ramadan a été Euh, non jeudi ambassadeur de Trace Afri euh, Cora donc lors de la cérémonie de lancement de cette nouvelle chaîne euh, bu Trace TV donc Trace Afri Cora est dédiée aux musiques et cultures du Sénégal Mali ak Guinée ba Gambie donc moom Wally Ballago Seck moom la ñu def ambassadeur ñu koy féliciter bu baax a baax ci liggéey bi rawtu ci doole ñi nga xamante ne ñoom lay àndal di liggéey muy Ramadan ci noonu nag dañuy dem destination ah, destination bi nag bu ñu fa demee dañuy sant waaye xam naa ne tamit guerrier yi sant nañu euh, Ba sant nañu Guèye ndax loolu moom leer na ma dañuy dem nag euh, Kupu Kala Kupu Kala muy musée africain euh, bu am solo boo xamante ne fii la nekk ci mim réew dañ ciy ànd ak soxna Hawa madame Taba. dafa def ne dafa fekk ne rek ne du ñu sori parce que la dernière fois ñu woon Podor. mais tey biir Dakar la ñuy des. bu soriwul dara la rose maanaam ci déeni biram ndaw dañuy dem xooli musée africain bi ñu koy gën a xamee ci Kupu Kala. ñu dem ñëwaat. terre de nos euh, ancêtres muy euh, village bi nga xamante ne moom la ñuy wax euh, Kupu Kala. muy Kupu Kala Kupu moom mooy traditionel bi Kala moom mooy. ah non bi mooy moderne bi mooy traditionnel. d'accord boo gisee ñu defati ko noonu ci xanaa rek di leen fàttali ne ki doon wax sànq mooy mu Fall. Hmm. mooy jiitu village africain boobu. musée bi nag li tax ñu taxawal ko mooy dañuy bëgg mi ñi mi ñi ni koy waxee def un village en miniature par hmm. exemple. Hmm. boo nee tey li seetaan nii mooy Sélé Joola. boo duggee tey ci village bi comme li ñu doon seetaan tu as l'impression que tu es en Casamance. Mhm. parce que déjà dañ lay dellu siwaatal li ethnie casamançaise yi doon dund instant boobu noonu maanaam démb c'est a envie de mhm. a envie de découvrir les peuples de la Casamance moom la maam yi li nga xamante ñoo dëkkee Casamance doon dundee mhm. déjà village boobu li tax ñu déjà ñu taxawal ko mooy gën a fàttali askan wi rawatina ñi nga xamante mooy jeune génération yi dëkk fii ci Sénégal balaa sax may wax waxi touristes yi mm. ndaxte problème bi ñu am tey Sénégal mooy dellu soit cosaan cosaan bi mooy lan mooy man na muy keneen ak keneen dañoo réeree ba tey lan moo nekkoon démb te démb genre village yi dafay am solo ñu koy duñu ko dundalaatal duñu ko expliquer ku mel ne Sémou Fall tey boo ko fekkee foofu noonu mm. di fàttali ne foofu espace euh, hôtelier le genre dalukaay la. dalukaay waaw bu bakkee ne sax. bu bakkee ne bu bakkee ne pension complète par couple. li war a am yëpp am na fa. waaw ndaxte boo xoolee ci ginnaaw kaas yi mhm. ay. espace yu ñu aménagé ba mu baax la. case la tu as hmm. l'impression que tu es au village mais boo duggee fa fekk modalité bu doy. confort confort. macha allah yaa façon d'accueillir les touristes et les hmm. sénégalais comme ni ma ko waxee hmm. le tourisme local. et de connaître notre pays. que fils du pays. exactement te genre local yu mel nii loolu moo leen tax parce que dañuy dañuy combiner ak moderne. moderne bu fekkee ak jamono macha allah. Euh, ma laaj l'ancien international euh, Cheikh Sidibaa wax ñu euh, moom nax Sénégal ci bu ñuy wax Sénégal am na ay merveille ndax moom jot na ci découvrir ak euh, ay ça remonte à quand comme du ñàkk xamoo kupu kala balaa ma lay naan xam nga nga ne ma xamoo ko. waaw pour moytu loolu pour moytu loolu dama lay Déni Biram c'est pas loin. c'est pas loin boo weesoo Lac exactement très bien foofu la nekk foofu la nekk. boo demee ci kuppu boo demee ci kuppu fekk fa boo demee ci kala fekk fa modernité. donc mu nekk lu mais mais yow mos nga dem ci suñu yenn merveilles yi. waaw j'ai visité les îles les îles du Saloum. d'accord waaw ah, donc euh, très très beau. il fait bon à vivre et que nit mën nañu fa dem noppalu. et que euh, je pense que si am na ay lieux yoo xam ne que fii Sénégal yu bëri xamuñu ko. Mhm. et que euh, soo fa demee tu te tu es surpris. Mhm. tu te dis que ndax lii am na existe existe na fii Sénégal. par exemple Cap Skirring aussi. Mhm. bien sûr Cap Skirring aussi c' est un lieu très convivial boo xam ne que soo fa demee. jàmm jàmm jàmm gi fa. on va vivre. et que y' a beaucoup de lieux fii Sénégal yoo xam ne nit war nañ fa dem euh, profité au lieu ñuy dem bitim réew di dépenser assez de plus beaucoup d' argent pour fii mm. y' a des lieux yoo xam ne que mën na fa dem vacances ou vacances yu neex et puis tu dépenses tu dépenses peu d'accord très rapidement 30 secondes en tout cas man mere naa torop madame Tamba ndax buy dem si man xaw ma réew mi nga war ma see dimbali. booy buy reportage yóbbaale ma. mais dañuy programmé. mais c' est c' dañ fay dellu équipe bi parce que déjà invité nañu. Mm. léegi day dañuy xool ñun suñu disponibilité. pourquoi pas. Mm. yow da ngay dem Nicolas yow ñu war a gérer loolu gérer ñu benn émission boo xam ne dañ koy délocaliser. ñu tourné fa kon kon kon euh, la rendez-vous euh, lundi prochain. lundi prochain incha allah beneen destination am na solo. promotion culture bi dama am solo trop. waaw parce que y compris ñu bëri. Ah. man man l' aspect culturel. d' accord mais laal quoi parce que ci diversité culturelle bu Senghor wax. la culture te dit pas la fin de tout. donc dañu war a ouvert. mais la culture enrichit. on doit s'ouvrir au monde contrairement ak finance on doit s'ouvrir au monde mais en protégeant. d' accord en galvanisant en galvanisant vraiment. les produits locaux le tourisme local. Mm-hmm. tu vois donc ça permet au monde entier. de d'identifier le Sénégal merci. par rapport à un domaine bien spécifique. mais yàlla merci. kon yow on se retrouve dans la semaine jeudi. oui vendredi vendredi jeudi le temps de voir avec Diédhiou. d'accord très merci. bien. waaw ah, altine. altine incha allah tàggu bi. waa di jaajëfal euh, grand l' international ci kër gi la. waa ci kër gi la ci kër gi la ah, drapeau Sénégal la ah comme comme xawaa ma xawaa day am lay bañ day bañ ma tudd benn affaire. d'accord mooy di béggee ah. première dame. merci fës ah non xawaa du ko bañ de. waaw loolu am na solo. <laughs> merci eh, ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci disponibilité bi ñëw bokk ak ñun plateau bi lan mooy message bi à l' endroit des Sénégalais. ah le message à l' endroit des Sénégalais mooy euh, ñu continuer soutenir équipe bi. parce que l'équipe en a besoin. Mhm. et que dooleel équipe bi. et mhm. que euh, xam ni que c'est pas euh, loin. on est tout prêt mais il mhm. faudra am ay correctifs am na ay. Euh, ñu càmbalaat a yi ñu a que pour Sénégal mën a la dernière marche. merci beaucoup ça a été un grand plaisir de partager ces moments avec vous téléspectateurs leaders auditeurs auditrices mélomanes yéen ñi nga xamante ne yaa rendez-vous demain c'est durant toute la semaine ce matin c'est à nous. bés ñun ngeen ci àndal ñu ngi leen di leen gërëm bu baax a baax merci beaucoup euh, taal ngol ngol léegi moo ànd ak yéen incha allah bu ko tegee buñ ci jógee dinañ dem ak ki nga xamante ne moom mooy maman Mbayang euh, ci kër gi ak ñi nga xamante ne ñoom lay àndal muy consultant mais aussi euh, les grandes heures dinañ ci ànd benn Ben Mokhtar programme bi continue di woy sur la 2STV la chaîne de toutes les générations